au nom de l'islam. sant rek te soññu. bu nu geesu bu nu taxaw. Cheikh Mouhamadou Mountakha Al Mbacké vous témoignez gratitude par la ziar nous est redevable. jërëjëf Mbacké. Hizbut Tarqiyyah. ay géej ay tund ay montagne bu doxoon sa diggante ak sa sëriñ da ko war a jéggi. 22 mai 2021 Touba un appel solennel de reconnaissance au khalife général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. c'est la grande ziar laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké sagal nga lislaam jërëjëfe Mbacké am sant rek te soññu bu nu geesu bu nu taxaw Cheikh Mouhamadou Mountakha al Mbacké di la sant ka ziar daa dàkk jërëjëfe Mbacké ay géej ay tund ay montagne bu doxoon sa diggante ak sa sëriñ da nga ko war a jéggi. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2021 Touba daara Hizbut Tarqiyyah moo fas yéene amal ziar bu mag ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi baaxoo di seetaan seen télévision Al Mouridiyyah ñu nañu mbégte di leen nuyu tey di leen ziare waat nuyu waat sax laay wax ziare waat leen ndax du doy mukk ci bis bi ndax bis bee ko laaj ah, ñu jiital nag ci nuyoo bi ak ci ziare bi sunu sang Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ah, di ko ñaanal suñu borom mu guddal fanam waaye it mu defal ko ak wér ba naa li nga xam ne sumb na ko ci liggéey ma ji Cheikhul Khadim mu yeggale ko ak sagoom te lépp nandu koog moom waaye lépp it nandu koog mboolem njabootuk Serigne Touba gi kenn bañ a wuute niñ leen ko diggee woon nag tey ci euh, bëccëg gi ak ci fan yi nga xam ne si moo jàll yëpp ni ñu ko doon baaxoo di ko def mooy di am ak yéen ay waxtaan yoo xam ne si la ñu ci jublu rek mooy fexe ba ñu gën a xam solos bis bi nga xam ne si moom la ñu dëgmal te euh, daara Hizbut Tarqiyyah jàpp ko ci ñaar fukki fan ak ñaar muy doon ëllëg incha allah euh, ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi toog jotaay bi Cheikhul Khadim Euh, tey jii nag ñu amati mbégte ginnaaw bi ñu euh, doxalee bëccëg gi ak plateau yi nga xam ne si jot na fee jaar yëpp malgré que gàtt nañu waaye da ngay gis ne benn bu ci nekk dangay gis ne day fees dell ak njàngalem Serigne Touba fees dell yit ak li nga xam ne si moom mooy njàngalem yitte ji ñu war a def ci euh, ziar. Euh, ci fan yi nga xam ne moom la ñu génn tamit euh, bu ci nekk rek guddi bu jotee euh, ñu doon ànd ak yéen ci ay waxtaan yu am solo doon ci dalal ay boroomi xam-xam waaye doon ci dalal it ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk liggéey bi te ci ànd ak jëwriñ ji di Serigne Youssou Diop ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew kenn ku nekk di wane sa pas-pas waaye it di wane sa yéene looloo waral kon euh, tey jii nga xam ne daanaka mën nañu agsi nañu ci euh, ci pandaw gi ni ñu koy faral di waxee euh, ñu fas yéene nag àndaat ak yéen ci waxtaan woo xam ne si rek la ñu ci jublu ba tey mooy fexe ba ñu gën a mën a xam sëriñ bi fexe ba ñu gën a mën a xam tamit yitte ji nga xam ne si moom la ñu def ci ziyaara bi ak lu tax daara Hizbut Tarqiyyah jàpp ziyaara bii nga xam ne si daana na ziyaara naam waaye dafa mel ne bu tey bii moom dafay am beneen couleur boo xam ne si moom lay jël daanañ ci danañ ci dikkaat incha allah ci kanam tuuti ak sunu mbokk yi nga xam ne si ñoom lañu toogal loolo waral ci jataay tey bi ñu ànd ci ak Serigne Mouhamed Lamine Diouf mi nga xam ne booba ñu tàmbalee ba léegi moom it daf ñu doon gunge rek ci waxtaan yi ah, ak ci ay thèmes yu am am am solo ñu ngi nuyu ci au passage ah, Imam Ahmed Touré ñu ngi nuyu tamit Serigne Alioune ñu ngi nuyu tamit ah, Serigne Mouhamed Lamine Guèye ñoo ñëpp kon jot nañu fee jaar ak ñi nga xam ne ñoo fi jaar tamit te tooge woon fi jotaayub direction générale ñu ci mel ne Serigne Ahmed Sidi Samb ñu ci mel ne Serigne Ibrahima kayta ñu ci mel ne Serigne Mourtala Sey ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen siyaarewaat bu baax baax a baax a Euh, kon euh, yitte ji mooy rek fexe ba bis bi ñu euh, yéegal ko ci fi nga xam ne foofu la responsable moral bëgg ñu yéegal ko foofa te yaakaar naa ñu ngi ci réussir ndax ba ñu tàmbalee ba léegi dañuy gis ne saa bu nu tàmbalee rek ndam lañ ciy gën a am saa bu nu tàmbalee rek mbir mi dafay gën di yéeg ah, xol yi dafay gën di tooy waaye it nit ñi dañuy gën a am envie yegg ci bis bi muy ëllëg incha allah loole nag kon tey mën nañ ne suñu diggante ak bis bi fi ne nii waxatuñu ay bis. waxatuñu ay euh, waxtu daanaka waaye mën mënees na ko xayma ci diggante bu gàtt gàtt gàtt ndax am na tey ci guddi gi ñoo xam ne si duñu nelaw nii la ñu fas yenee xoolee ba asamaan seet ngir rek def yitte ci bis bi ak it fexe ba nga xam ne gan ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ëllëg ak mbooloo mi nga xam ne ñoo fi nar a teew suñu ñëwee kenn ku nekk la sëriñ Yuusu joxe woon ci ay tegtal loole kenn ku nekk mën ko fee fekk incha allah euh, kon xam naa mën nañoo tàmbalee ci sëñ Mouhamadou Lamine Diouf euh, ci nuyoo yi suñu paree it ñu ànd ak sëriñ Limane saar mi nga xam ne moo fi teewal euh, jëwriñ ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk ci bitim réew moom mu nekk daaray Amérique États-Unis danañu ànd it ak sëriñ Fallou Dieng moom tamit. sëriñ Fallou Sarr ngeen baal ma euh, moom sëriñ Fallou Dieng waaw noonu la sëriñ Fallou Dieng euh, bu Italie moom tamit mu ñëw ci li nga xam ne waa Italie ñoomit ñu ngi ko doon waajal euh, mbooloo mi ngeen gis sama ginnaaw tamit macha allah ñoom it ñu bokk ci daara Hizbut Tarqiyyah mu ci bëree bëri ci ñoom jóge ci bitim réew ngir fas yéene ñëw bokk si ci li nga xam ne si moom mooy siyaara bi kon loolu yaakaar naa la waxtaan wi di tëdde ñu jox rek kàddu gi sëñ Mouhamed Lamine Diouf mu nuyoo sëñ Lamine asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Modou mm-hmm. ñu lay delloo nuyoo bu baax di ziyaare mboolem bokki taalib yi nga xamante ni ñoo fi teew ak ñi ànd ak ñun ci almurid yi ak fu ñu fi mën a nekk ci biir réew ak bitim réew di jiital suñuy kàddu kàddu yu ziyaar jëme ko ci a cheikh mouhamadul muntaha ibnu cheikh mouhamadul bachir xalif général des mourides di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér amiin li mu yéene ci liggéey Serigne Touba matale ko allahumma amiin te ñu ànd ko ak moom di ziyaare itam bu baax ñu daal isub tarxi Serigne Youssou Diop di ko ndokkeel mm-hmm. ci waajtaayu ziar bi mm-hmm. ci ay taxawaayam mm-hmm. ak i soññeem ak i yitteem ngir bëgg rek euh, murid yëpp ànd wutali sëriñ Touba di ziar itam mboolem daari biir réew mi ak bitim réew kenn ku ci nekk ci Pastef ak yitte ji mu def ci bis bi teg ko rek ci loo xam ne fu ñu tuddee rawante ci lislaam mu teew ulaay koy saarixoona fil xayraati wahum lahaa saabixoon mm-hmm. kon ñu ngi nuyu ñëpp mm-hmm. di leen ziyaar ñaan suñu borom ci barkeb sëñ Tuubaa mm-hmm. mu yeggale ñu ak jàmm ci bis bi te ñu defee ko ni ñu ko sàkkoo allahumma amin am ci ngërëmal sëriñ Tuubaa amin ya rabbal alamin jërëjëf suñu Mamadou Lamine Diouf ñu ngi lay santaat bu baax a baax ci kàddu yu sell yooyu nga xam ne moom nga yëkkati sëriñ Ilman Sarr asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Modou Kébé kon ñoo ngi lay delloo nuyoo bu gën a sell ah. di nuyu mboolem ñu teew ci jataay bi rek di leen siyaare bu baax a baax waaye di nuyu itam nag sëñ euh, Mountakha Mbacké ah. euh, xalifa général de Mouride di ko ñaanal bu baax gudd fan ak wér di nuyu itam nag euh, suñu jawriñ sëñ Youssou Diop responsable moral mm-hmm. di ko ñaanal jàmm di ko sant bu baax ci mm-hmm. ite ji ak mm-hmm. lu am solo lii nga xam ne moom la ñuy waajal suba muy ziar bi ah. ñu ngi ko ci njukkal bu baax di nuyu nag bépp membre boo xamante ne bi yaa ngi ci biir réew mi wala bitim réew di nuyu itam képp koo xam ne soppe Hizbut Tarqiyyah nga mhm. wala ngay am di jàmm mhm. foo mën a ne ci kaw suuf ñu ngi lay beral ab nuyoo di la siyaar dina ñaanal jàmm aha jërëjëf sëñ Elimane ñu ngi lay santaat bu baax a baax ci kàddu yooyu euh, di la tatagalaat tamit ci plateau bi sëriñ euh, Fallou asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Fallou Dieng hmm. Hmm. dafa mel ne dañ ne micro bi desen tàkkul ci kaw lay jëm waaw kay bisimilah. bisimilah. Mhm. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullah mhm. ñu ngi leen di delloo ziar. Mhm. Euh, ñu ngi ziar mbooleem ñi fi teew ñëpp. Euh, tey jiital ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha. tey ñaan suñ boroom dëgëral ko. ba lépp li nga xam ni moom la soobu muy liggéeyal Cheikhul Xaddim bi. mu matale ñëpp di euh, ziar tamit euh, sëñ Youssou Diop ak mboolem mhm. membre yi nga xam ne ñoo fi teew ñu ngi ziar ñëpp waaw kay jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi lay santaat bu baax a baax euh, kon noonu la fas yéene jataay bi fas yéene tëddee tey euh, ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw tamit incha allah danañu leen jox micro ñoom tamit kenn ku ci nekk buñ la joxee micro da nga présenté wu euh, di nga wax tamit jan daara nga fi teewal ak it wax daara ja nan la ñuy liggéey ci jamono ji ak it nan la ñu doon waajale ziar bi daañu ci dellu siwaat ci ci kanam tuuti kon sëñ Lamine mën nañoo tàmbalee ci yow sëñ développé nañ ci ay thèmes yu bëree bëri ci diggante fan yi bi ñu waree ak léegi Euh, xam naa du ñu mën a jukki lépp ci jataay waaye dañ il faut ñu dellu siwaat def li ñuy wax muraajan maanaam euh, def benn révision boo xam ne si thème bu ci nekk rek dañu ci laalaat tuuti rek jukki ci ngir ñi nga xam ne si xëy na doon nañu tàqamtiku waxtaan yi ñu mën koo euh, fàttaliku waat bu baax a baax a baax ndax doyaluñu ci jataay bu ci nekk da ngay gis ne gudd noonu guddoon na lool waaye ba nu koy yëkkati dangay ngay ci doyal nañ fi thème ziar mooy ziar waxtaane nañu fii it thème addiya mooy lan la mën a apporter indil jullit bi waxtaane nañu fi tamit euh, cofeel lan la mën a euh, indil euh, taalibe bi nga xam ne si dafa jokk ci nit maanaam dafa jokk ci ab sëriñ mit bi misaalu ñenn ci mag ñi nga xam ne si dañoo jamonte woon ak sëriñ bi te joxoon ko seen lépp naka lañ doon dundee ak sëriñ bi rawatina ci nangul gi nga gi ñu ko nanguloon ak nan lañ ko daan siyaaree yaakaar naa loolu bokk na ci thème yi nga xam ne si euh, développé nañ ko fi ci fan yi muy nag ay thèmes yoo xam ne si yu am am am solo la des na sax waaye nag yii rek moom euh, daanaka mën na dana doy su ko defee bu ñu dellu siwaatee rek ci siyaar suñu moom lañ pour fàttali rek ak rafraîchir la les mémoires euh, lan mooy siyaar ak tamit isbu tarxiya ci boppam siyaar yi nga xam ne sii daan na ko def ci xalifa yi Serigne Touba yi nga xam ne ñoo fi ñoo fi jot jaar yëpp euh, nan la ñu daan tëggee siyaar bi ci boppam nan lañ ko daan déggee ak nañu nan lañ ci daan sóoboo euh, loolu tamit nga dikkal ñu ci ngir ak ngir ak fàttali. ok jërëjëf euh, sëñ Modou ñu lay sant bu baax. Mhm. ci kàddu yi nga indi. Mhm. ziar. Mhm. buñ ko waxee mooy. taalibe boo xamante ni dafa jóg. jëm ci ab sëriñam. donte baatu ziar. ëmb na lu bari euh, li ko suuxat nag day mel ni mooy cofeel dégg nañ ci woote bi suñu jëwriñ sëñ Yuusuf fàttali bayit yoo xam ne sëriñ Touba moo ci doon wax ak boppam ak di ci wone taxawaayam muy zurman tuhibbu wa inshatat bi ka daaru wa haalu min dunihi sahlun wa awhaaru laa yamnahannaka buxdul min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwaaw sawaaru kon nee ki nga sopp daal waroo am gàllankoor sa digg ak moom donte ay géej ngay xuus donte ci ay montagne ngay jaar ab soriwaay bu mu dox mukk sa diggante ki nga sopp ngir ki nga sopp kooku rek moo yeyoo sab ziyaar mu mel ni kon cofeel gi doo ngay am ci sëriñ bi ak te ji nga xamante ni moom lañu am ci bëgg koo liggéeyal ah. loolu rek mooy sababu ziyaar teg la mel ni daara Hizbut Tarqiyyah kon mhm. euh, bi daara ji sosoo bu bisub tey mhm. ay ziyaar mi ngi am mhm. ziyaar yooyu nag benn boo ci jël. Mm-hmm. cofeel rek moo ko suuxat. dëgg la ak itam nag baax na dongo bi bu toogee ab diir. Mm-hmm. dellu ci sëñ bi ne ko maa ngi nii. la ma jàppoon tey laa ko gën a jàpp. Mm-hmm. la ma waxoon tey laa ci gën a nekk. fa ma ne woon maa ngi koy feddali. kon muy euh, yeesal jaayante. ak feddali laxasaay. dëgg la kon day mel ni yooyu yëpp ñu daan def ci ziar. daje na ci ziar bii. Hizbut Tarqiyyah nag. Euh, sàkku ngërëmal sëriñ Tuubaa di itteem mhm. mu teg bëtam mhm. ca saxaaba yi seen digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nañu gis ku jóge fu sori mhm. bari na te ñuy tudd ci lislaam ñoo xam ne du ñu ay arab dëkkuñu màkka juddoowuñ fa dañ faa ñëw te xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo xeeñ seen ci lislaam xëcc leen ba ñu ñëw salmaan fa mu dëkkoon sori na lool waaye dox na ci lislaam ba am cërub mhm. ko yorente bi sallallahu alayhi wa wax ne mhm. boole naa ko ci ahlu bayti te du woon arab sax mhm. sohaylu du woon arab ab la woon bilal ibnu rabah ku ne xam na ni du woon nit ku weex nit ku ñuul la woon waaye ñi ma tudd ñëpp am nañu ay cër ci lislaam yu rëy yoo xam ne la leen ko may mooy cofeel rek. dëgg la ak fu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ñu fekk ko fa. loolu lañ gis mag ñi daan ko def seen digganteeg sëñ Tuubaa. waxtaan la ñu démb ci Thièyeen. Mhm. gàllankoor yu tar yi nga xam ne. Mhm. nguurug nasaraan gi fi nekkoon. Mhm. moom la gàlloon ci kaw murit yi. waaye doxul seen digganteeg dem ci sëñ Tuubaa. la gànnaar itam gis nañ ko. dem fa yombul woon. sori woon na jafe na waaye murit yi dañ fa daan dem di fa fekki sëñ Tuubaa. sëñ Ibrahima Diop almasar yu nag dafa waxoon sëñ Tuubaa ne ko yow sa bin sa buntu kër bis bu nekk mm-hmm. ni aj màkka di mel bu nit ñi di tawaaf kaaba gi mm-hmm. sa bis bu nekk ci sa kër noonu lay mel ngir mbooro yu ko daan dikkal taranaas afwaajan ilaa baabi daarihi mm-hmm. kam makkata yow mal hajji akbari lil amal sëñ Tuubaa it seere ne fa ma nekkoon ca gànnaar la muy sori sori sori mbooloo ñoo fa daan dikk di ma fa fekk la lillahi kulli lada mm-hmm. abari mokrimatin min hal taharna mm-hmm. wa fiha jamma man saara comme mm-hmm. moo seere ne métti na loolu waaye mbooloo yi dañuy dikk loolu nag moom rek la isbu tarixee fas yéene roy ci ñooñu jaar ci seeni tànk barkeelu ci seen doxin ba ku fi nekkal sëñ tubaa saa bu ñu toogee ab diir dajaloo dajale li ñu am euh, muy suñu yitte di suñu yéene di suñu pas-pas di suñu xol soo ko fab nag suñu jëmm teewal ko ci ngir firndeel ko ne la ñu waxoon ba tey ñu ngi ci dëgg la la ñu jàppoon tey la ñu ko gën a dëgëral dëgg la muy yeesluwaat mm. ak feddal laxasaay day mel bi ci loolu rek la tàbbi ci loolu lay tàbbi mi ngi a baax daañ ci waat eh, ci kanam tuuti rek eh, ci buntu boobu ndax pareeguñu ci eh, sëñ Ilman Sarr xam naa ci buntu boobu rek ba tey buntu ziar bi ak ni nga xam ne noonu la ci Hizbut Tarqiyyah fas yéene soobu dafa am lu ma doon cof rek parce que keroog doon nañ ko dégg ci waxtaan yi mooy fàtte ku ko waxati yaakaar naa jëwriñ sax dana ko faral di wax ne Cheikh Mouhamadou Mountakha dafay wax ne Hizbut Tarqiyyah bis bu set ci moom daanaka ziar la bis bu set rek ziar la ndax euh, seen diggante ak sëriñ bi ni mu demee moo tax xam naa kon euh, ñu ñu toog ba mu yàgg ngeen jàpp ne aussi war nañoo nag bis boo xam ne si moom dañ koy tudde ziar ci boppam bien que ne bis bu set ziar la waaye war nañoo jël bis boo xam ne nag dañu koy tudde ziar dem fekk ji sëriñ bi jébbal ko suñu addiyee ni nga xam ne noonu la ko suñu Mamadou Lamine waxee léegi euh, loolu bëgg naa nga dellusiwaat rek ci pas-pas boobu lan moo ko waral ak it motivation bi nga xam ne si moom moo nekk ci ginnaaw ba ngeen gis ne saa bu ngeen toogee ba mu yàgg rek war ngeen a dellusiwaat ci kilifa gi fàttali ko seen bopp wan ko seen bopp te pourtant fàttewu leen ndax bis bu set yéen a ngi ci kanamam jërëjëf sëñ euh, Modou Kébé jërëjëf ah. sëñ Lamine ci ubbi gu am solo googu nga ubbi mhm. xam nga sëñ Lamine jot naa tudd bay yi ah. mu zurman tuhibbu mhm. kon ndigal la ah. ci noonu mhm. ziyaar nag soo ko xoolee euh, boo boo jëlantey rek benn bay ci euh, jazbul qulub da nga dégg sëñ Touba di wax ne kaane yazuru manzila ridwaanu kay yu bajjila minha tuyuru mursala ala zawi taazumi bëkk néegu aljana di Ridwaan da daan siyaar rasulullah sallallahu alayhi ngir màggal ko ngir màggal ko mm. day yu bat ji la mm. kon siyaare ci yoonu murid wala ci islaam mm. kangay ngay siyaare la ci njëkk da nga koy màggal dëgg la da ngay sàkku barkeem da bëgg jariñu ci moom bu dee ci yoonu murid xam na ne siyaare moom ndo euh, aada joo xam ne mm-hmm. mën na ne mm-hmm. euh, farata la mm-hmm. euh, bu fekkee isbu tarxee nag moom Euh, yaakaar naa li ñu sëñ Touba defal. moom mi sos yoon bi. Mhm. Euh, bu ñu sañan. Mhm. du ma wax sax par weer wala par bis waaye par seconde bu jot. minute bu jot. Mhm. ñu ko. sëñ Touba li mu dolli ci ziyaar. yaakaar naa war naa tax kenn ku ne. foo jógee rek. waaw boo boo boo noon démb nga ziyaar rek. sam xel demaat ci ziyaar. am na foo xam ne sëñ day wax ne. waxfir liman qad zaara daari xubba wahab lahul muna bi jaahi zeynaba sëñ Tuubaa day wax ne. yow suñ borom képp ku siyaare sama kër. xam nga foofu sax mën na ne ku zaara nii ku siyaare. waaye ku siyaare sama kër la wax. ci mais ñu ngi ci Touba. <laughs> waaw Touba kër sëñ Touba la ci lu wér wér. ah wax ko li kulli man bi xat sakana wala lazi laha li xayrin rakina. loolu sëñ Touba quoi. dëgg la nee naa nga ñëw siyaara ma man sama jëm nga sopp ma. Mhm. waaye képp koo xam ni ñëw ni ci sama dëkk bi. Mhm. te lu baax tax laa a ak ma. Mhm. ñaan naa suñu borom mu jégg la bàkkaar njëkk ak yu mujj kon nag bi mu nee mhm. wax fi li man xat zaara euh, daar yi képp koo xam ne siyaar na sama kër ñaan naa suñu borom nga jéggal ko waaye bu ca yem mhm. waxab loxul mu naan na nga ko may mébétam mhm. bi jaaxi Zeynaba ci doomu yonent bi nga xam ne moo tuddan Zeynab kon ziyaare li ci nekk ci njariñ ku ko xam rawatina nag ci nitu yàlla bi ma tuddee Ridwaan léegi tudd Rasulaay kon xam na ne ziyaare du même rek ziyaara waaye ziyaara nitu yàlla ku màgg d'accord la nga cay amee mënee su koo jënd waaw waaw ndax da ngay dégg Sëñ Tuubaa di wax itam naa euh, ci feneen li kulli man ahabbani aw zaara fa najjihi wakk fii lahu aw zaara wakk fii aw zaara képp koo xam ne rek maa ziyaara mm. ñaan naa suñ boroom wala nga sopp ma sax la wala nga ziyaara ma ñaan naa suñu borom mu may la juddu bil muraadi la na nga ko may la mu bëgg. wakk fii aw zaara te nga fegal ko ay bakkaar. kon nag yaakaar naa ziar moom. Mhm. ci yoonu murit. Mhm. Eh, lu lu fës la. Mhm. lu ñëpp xam la du lu nëbbu. d'accord Hizbut Tarqiyyah nag ni mu koy waajalee ni mu ko bëggee ni mu koy defee moom. def na ko. ngir sopp Serigne tubaa def na ko ngir warugar mhm. waaye def na ko it ngir bëgg a dolliku mhm. waaye def na ko itam nag ngir mhm. niñ ko sëñ Lamine waxee ñu yeesalaat suñ pas-pas ak suñu jaayante ci Serigne Touba dëgg la kon ziar Moodu. waaw yaakaar naa li ci li lamboo ci njariñ waaw wax dëgg yàlla bari na ba tax na loolu rek waroon naa tax ndax ni ko sëñ Lamine waxee nii ci zar saara dégg nañ ko dëgg la waaye teewul sëñ Touba ne fukk lu mën xadama ne aw zaara fa najjihi wax fi loo aw saara mm. loolu boo gisee sëñ bi di ko baamu di ko wax njariñ li nekk ci ziyaara mhm. la bëgg nit ñi xam ko ba mën a jariñ d'accord ndax koo xam ne boo ko ziyaaree mhm. suñ borom te yàlla tax suñ borom jéggal la mhm. euh, musal la sàmm la aar la dolli lay xiiwal kon wax dëgg yàlla njariñu <laughs> ziyaar yaakaar naa euh, kenn ku ne war na ko xam te it fu mu toll di ko di ko di di di dox di ko sàkku di ko sabablu dëgg la ngir mu mën a am ngërëm ak yokkute dëgg la ci lu wér ci lu wér mu ngoog jërëjëf euh, sëñ sëñ Elimane ñu ngi lay santaat bu baax a baax daañu jël si waat ci kanam tuuti sëñ Euh, di nga dugg ci buntub ziar bi nga xam ne si ci la sëñ Elimane daane léegi ak sëñ Mamadou Lamine euh, euh, xam naa njëriñ yi nga xam ne si moom la mën a jural taalibe bi ndax loolu doon na ko junj léegi rek waaye dafay mel ne tamit ci yoonu murit maanaam siyaare moom obligation la maanaam lu war la ci taalibe bi loo xam ne si daanaka mën nañ ne farata la ci moom ju ñoro ñoro ñoro foofu la ko mag ñi tegoon ISBRG tamit bi mu ñëwee dafa mel ne dafa làbbaliwaat loolu nga xam ne dafay jàpp ne obligation la saa su nekk muy dem di yeesluwaat ci nga xam ne si moom mooy euh, mooy kilifa gi. bisimilah barke borom Touba. waa nit ki moom ki mu sopp. Ah. Euh, bëggu ko. Mhm. saa su ne mu war di ko ziyaare. Ah. Euh, donte. Mhm. ay montagne mhm. ak ndox. lu ne dafa dox sa digganteeg moom mhm. wërta mën a ñàkk nga di ko ziyaare mhm. te ziyaare lu mel ne cheikhul xadim mhm. dafa bari ay njariñ ndaxte dafa wax ni na lazina ila sarsaara xat xasadoo ziyaarati faaraxoo daara ni aw zaara ñi nga xam ni fekk nan ko sarsaara ziyaar ko tàggoo nanu bàkkaaru àddina ak ju Cheikh Abdoul Ahad mbakke nag am na lum ci leeral. Mhm. Euh, daraja ja ko may loolu daf koo fekk Sarsara. waaye ku ko fekk Sarsara ziyaare ko. Mhm. ak ki ko fekk feneen fu mu mënti doon. Mhm. Euh, da ngay sa bàkkaaru adduna. ak sa bàkkaaru alaaxira. Euh, bu tarxiya nag moom. dañoo nekk ay soldaar yoo xam ni. sëñ Abdoulaye daf ñu waxoon ni. saaba Cheikhul Khadim dafa waxoon ni mm-hmm. saaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam mm-hmm. kon népp noo xam ne saaba yi daan nañ ko ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa tamit ci loolu la nekkoon xàmmee wunu woon coono bu leen ci dab xàmmee woon ci ñu faat leen xàmmee woon ci ñu ñàkk seen alal ñoom daal kii moom lan gëm moom hmm. lan yaakaar ak lu mu laaj hmm. ak circonstance fu manti doon waaw du tee ñu di ko ziyaare hmm. te luñ ci gis rek da leen koy jaral loolu nag moo ñu moo mooy li ñuy waajal nii rek fu nu mën a fekk ci àdduna ak ci lum nu mën a fekk danañ ko bàyyi jàkkaaroog Cheikh Mouhamadul Muntaxa woon ko ni ñu ngi nii danoo nekkoon ci tool yi rek waaye daal bu ziyaar taxawee mhm. lépp lu jàpp mhm. danañ ko bàyyi mhm. ñu ngi nii euh, sab joxoñ daal la ñuy déglu foo ñu joxoñ rek foofu lañ jëm amuñu beneen leneen lu dul loolu d'accord d'accord waaw euh, euh, ziyaar bi sëñ sëñ sëñ Fallou lan nga jàpp ne moom lay dolli ci Hizbut Tarqiyyah ci digganteem ak sëriñ bi waa moo am na lu ma wax ci sànq ci kan ci li ko jiitu xam nga nit ki ki mu sopp ki mu sopp mhm. faw mu di ko ziyaare mhm. nit ki ki mu sopp faw mu di ko ziyaare euh, ziyaare bi mu koy ziyaar nag mhm. euh, dara dara waru ko koo mën a tere def moo xam ay montagne moo xam ndox moo xam lu mu mënti doon nit ki ki kim sopp moom faw mu di ko ziyaare loolu daal ban bëgg nañoo euh, feeñal sunu pas-pas sunu yéene ak mag ña nga xam ne nag tamit mhm. ñoom it danoo yaakaaroon sëñ Tuubaa mhm. lu mel ne xomaat mhm. ba mu fa nekkee gis nañ ñi mag ñi lim leen jaraloon ceyeen tamit ba mu fa nekkee lu ne xeetu gàllankoor gune daan nañ leen ko teg waaye mustatee heure buñ ko waree siyaare rek day mel ne yooyu yëpp gisuñu ci dara day gën a yokk seen pas-pas gën a yokk seen yitte gën a yokk seen euh, bëgg gi nga xam ne moom lañ bëgg di ko liggéeyal. dëgg la dëgg la waaw kay mu ngoog jërëjëf kon sëñ Fallou daañu dellusiwaat ci kanam tuuti rek euh, suñu moom Lamine kon euh, yaakaar naa loolu ngeen wax ci ci ziar dafay wane rek ne kon am na motivation boo xam ne si toujours moom mooy nekk ci euh, ginnaaw murit bi nga xam ne si jokk na ci kilifa gi ba pare bëgg digganteem ak moom tamit di am connexion ni ko imam Ahmed Touré di waxee saa su nekk bëgg courant bi di ko man di maas saa su nekk mel kon euh, li ko waxee léegi obligation la ci murit bi saa su nekk muy delluwaat ci ki nga xam ne si kooku la jokkoon euh, boppam tey kooku la doxante ci diggante la doxale ci digganteem ak boromam ngir di yeeslu kon yeeslu gi day mel ne obligation la maanaam lu war la su ko bàyyee am na lu mu koy wàññi su ko dee def it am na lu mu koy jariñ nga dellu si waat ma ci li mu koy wàññi ko bàyyee ak su ko def tamit lan la ko mën a jural. waaw jërëjëf euh, sëñ Modou. Mm-hmm. Euh, boo xoolee. Mm-hmm. dafa daje ci. Mm-hmm. sart yi nga xam ne ab murit ci lay dëggalee. sëñ mi nga xam ne nag. mooy borom murit yi. moo waxoon ne. ab murit de. lii tax mu doon ko dëgg. mën na koo amee ci bëgg sëriñ bi. mën na ko amee ci di ko liggéeyal mën na ko amee ci jël addiyaam di ko ko jox mhm. bi xidmatin mhm. aw bi hubbin aw hëddiyaati mhm. suñu boroom nag mi nga xam ne mooy def lu ko soob dajale tawfiix yu yëpp ci ziyaar muy benn jëf boo xam ne cofeel rek moo koy suuxat dëgg la waaye gannaaw cofeel gi di nga ci joxe addiya ginnaaw addiya gi di nga ci liggéeyal sëñ bi kon nga gis ne kon ziyaar bokk na ci li nga xam ne lii tax murit bi mhm. xolam du jóg ci sëriñ bi d'accord seexul xadim mi nga xam ne ñun mhm. moom la ñu yaakaar mhm. moo ñu woon misaalum ittewoo ziyaar digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yazuru ko min nii hay suma kunte yaa muhi fuwaadi wa ruuhi wa uh, fuwaadi wa uh, gis ne kon nee na uh, fu ma mën a nekk rek dama lay siyaar yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni kon tey jii euh, cofeel googu sax bi mu demee ba gàllankooru ziyaar am nee na ko man de euh, sama sama sama sama sama ruug yi ak sama yaram wii ak sama lépp donte gàllankooru nga gis sama jëmm mu waaxu ñëw ci yow am na waaye xamal ne sama xol ak sama ruu falay fanaan mujj na sax du fa jóg wa huwa lazi xeexa jismi an ziyaatihi hmm. laakin lisaani lahu hmm. kal xal bu sawaar kon mooy sama xol hmm. ak sama yitte ak sama ruu waxtu wu ne dem nañu ba maak yow mënatuñoo doon ñaar kenn la ñuy doon fuñ ma gisee gis la fuñ ma séenee séen la ñu ànd tàgg ñu ànd mënatuñoo tàggoo dëgg la nee na loolu cofeel moo ko mën <laughs> ndeysaan moo mën maanaam nga nekk fii ci sowu jant yonte bi saa sam nekk ca penku bis bu ne ngeen di wax te loolu euh, gis nañu sëñ Tuubaa daan na toog ci jataay ñu laaj ko dara mu ne ma laaj ko sama borom dem ñëw ne suñu borom nee na nangam nee na it cofeel googu mu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi mhm. mu xool jindeef yëpp mhm. gis ne sama xol bii mhm. moo ko ci gën a sopp moo ko ci gën a bëgg nee na moo tax ñu ànd maak moom يسيرني كالآلي وصحبي سرمدا ولي خار سرا غاب عن خير المهم nee na mujj na mu mel nii mhm. saxaaba yi nga xamante ni mhm. ñoo daan ànd ak moom mhm. mujj na itam ni waxuma ko nag ci wax yi ci wax yi euh, maanaam junju waaye nee na ci jëf lay doon d'accord madaxtu rasulullahi xatta ka andi mahal aali wala sahabi bil xal bi wal jismi ba mujj na fu ñu gisee yonent bi saa gis ma mhm. nee na loolu cofeel moo ko indi ci man Hizbut mhm. Tarqiyyah nag mhm. bi ñu jógee wutali sëñ Touba moo waral képp koo fi nekk maanaam duñu ko mën a muñ dëgg la bis mu ne ñi ngi am tawféex yi di séq moom ay liggéey dëgg la ñi ngi am tawféex yi ndigalam di di di di xëy ci suñu daara ji di fa gont ñu di ko liggéeyal waaye loolu lépp nag du tax mukk ñu jàpp ne euh, wàcc nañu d'accord war na daal bu ñu toogee ab diir mm-hmm. dajale mbooloo mépp jëwriñ daara ji teew fi kanamam mm-hmm. ne ko mbàkke gaa yaa ngi nii mm-hmm. fii ci biir réew mi ak ci bitim réew gone yaa ngi nii jigéen ñaa ngi nii mag ñaa ngi nii ndaw ñaa ngi nii di ñoo xam ne nag seen xol yi fees ak cofeel rek ba mënatuñ laa muñ ak lu ñu amit ñu seereel la ko yow mi nga xam ni yaa fi nekkal sëñ Touba. Hmm. ak it wane ne. Hmm. jekk nañu ngir fas yéene. Hmm. xam ne lañu waxoon ne jox nañu sëñ Touba suñu xol. ak suñu ak suñu ruu. ak suñu jëmm. ak suñu bakkan. ak suñu alal. lu ne day am seere. lii nag seere la ci. la kon ziar. bokk na ci li nga xamante ni waxtu wu nekkit. bu ñu fa ñëwee am tawféex yi. jëlee fa ay kaddu. ak i soññee. lii la ñu dégg ci kàddu goo xam ne. waaw ba bisub tey. lu ñuy waxtaanaat ci sëñ Touba. Mhm. kàddu ko day dellu si. dëgg la dëgg la. Mhm. ndax sëñ Saliou Mbacke. Mhm. ci ziar la ñu waxoon ne. jëwriñ daara ji teew muy sa yaatu. ñu di ko ñaanal suñu borom yokk yërmande ci moom. te gàttandoo ko ngërëmal sëñ Touba. nañu li ngeen di def ci ziar. laa jàppee muy sama ziar. muy li ngeen def ci ci màggal kon. laa jàppee muy sama màggal. li def ci gàmm. laa jàppee muy sama gàmm. dëgg la seere naa ni ànd ngeen ak sëñ Touba. xam naa it ne. li ma xam ci yéen mooy. liggéeyal sëñ Touba. joxe àddee. ak jàng xasit man mii nga xam ne de maa fi toog nekkal fi sëñ Touba. seere naa ne yéen a ngi jëflanteeg sëñ Touba di ko jaarale ci ñun. loolu nag mooy euh, seere soo xam ne. Mhm. bu ñu sañoon am ko. dëgg la ci ko fi nekkal sëñ Touba. dëgg la dëgg la loolu moo waral. moo mhm. waral ziyaar yi. ngir waxtu bu nekk daal ñu xam ne. Euh, mbooloo mi mbooloom sëñ Touba la. Mhm. suñu doogee ab diir jëwriñ daara ji ànd ak ñëpp. waaw ne ko gaayaa ngi nii. dëgg la moo xam ne gaayaa ngi nii. xool leen bëtu yërmande. wallaay ndeysaan buñ fa jógee. la mu waxoon ci nax ju rek dal ni bi ci ci gen ci gendiku boo xamante ni. da suñ suñu borom dana la ci doyul. doylul wëlis. ay coono yu bari. dëgg la waaw di nga ziyaar jóge fa. wallaay yëgg ci maqaama moo xam ne. soo duggoon xalwa ay at. mënu fa àgg. wallaay di nga ñëw ci ziyaar. jàkkaarloog sëñ bi. mu xool la bëtu yërmandeem. bég ci yow nga jóge fa mhm. amee ci ci mucc mhm. ak tawféex loo xam ne mhm. boo ko doon sàkkoo sa bopp doo ko mën ci lu wér ci lu wér kon muy loo xam ne kon waaw euh, li ci bari ci li ci gannaaw bi ci loolu yëpp demee ci ay tawféex muy nag bisu seere d'accord saa su ne rek ngir firndeel Sëriñ Tuubaa ne lañ ko waxoon waaw ne ko jox nañ la suñu bàkkan ak suñu alal. Mhm. ma nga ca ndax ziar ñaar yooyu rek. ñoo ok ñaar yooyu rek la mu ngoog jërëjëf suñu Mamadou Lamine dégg naa ci say kaddu rek muy euh, kon ñëwaat ci teew ci kanamu sëriñ bi euh, di yeeslu mbaatu bi yeeslu boobu nga tamit baat baat baat bu am solo la euh, waaye suñu limaan léeg-léeg damay dégg ci mbedd mi hmm, ndax man ci mbedd mi laa dëkk daanaka ñu ne isbitar xëy da moom daanaka ñoom mën nañ ne du ñu doyal ndax ci jamono si Abdu Lahat lañ commencé woon siyaare nañ Sëñ Abdu Lahat siyaar nañ mboolem xalifa Sëriñ Tuubaa yi xam ñoo fi jaar ñëpp macha allah te kenn ku ci nekk mën nañ ne daanaka laq nañ sa ngërëm laata nga fi laata ngay wuji suñu euh, moom it ci ziar bi nga xam ne ko moom ngeen ko mujjoon def yi xanaa 2018 la bu ma juum sëñ Lamine yi nga si moom la moom la fa wax seen jëflante ak moom tamit fës loolu ne yoonu murid ñëpp ko Sénégal ñëpp ko seere umma bi ñëpp ko seere waaye taxul ba tey rek Hizbut ya euh, doyal wala mu téye loxoom wala mu ne fi mu nekkat li ma doon wut ci Sëñ Tuubaa am daanaka am naa ko fi mu ne nag bu ma neexee ma tëdd ndax sama ginnaaw bandang waaye dafay mel ne toujours da ngeen di làbbaliwaat toujours da ngeen di gën a yeesa toujours da ngeen di jàpp ne li ngeen defoon du dara da ngeen ko war a suul tàmbaliwaat à zéro pas-pas boobu ak yéene jooju ak euh, euh, himma boobu fu mu jógee ak ak ak lu koy soxat waaw jërëjëf sëñ euh, Moodu ah. jërëjëf sëñ Lamine jërëjëf sëñ ah. loolu moom mën naa ne murid yi moom ci sëñ Tuubaa lañ ko doon noo doon ne ah. moom ku mën na koo xam moom li mu xiire ci rasulullah sallallahu wa sallam nga xam ne lim ko jóor kenn mos ko koo jóor waaye dafa mujj yëkkati loxoom ci kaw mhm. ne man zanna ne xayra xadimil Moustapha fa inna nii aqdimuhu bi Moustapha daal ne aqdimuhu ila janna daaril xaraar wal munaa wal min kooku moom kon amul espace bu witt ne na képp ku jàpp ne mhm. damay liggéey rasulullah ab saa bàyyi wala ab diir bàyyi wala waxtu bàyyi mhm. nee na jum nga ne man maa koy liggéeyal na mu ko bëggee mm. te dama koy liggéeyal ba tàbbi àjjana du ma wàcc murid yi doon nañ ko ci wet googu waaw mutu la xan te dem na ziyaada mm. boo ziyaara rek dolli ko ko waaw <laughs> boo ziyaara ko dolli ko ay ay mag maanaam boo ziyaaree danga nga dolli koy xiiwal da nga dolli koy teraanga da nga dolli ko mucc sëñ Tuubaa sax am na ñaari bayit yoo xam ne man bari na lu ma koy mu lu mu dem sama xel dana lam yan hu ni sultaanu aw waziru wallahu li yukrimu man yazuru sëñ Tuubaa fu mu toll day wone mhm. li ne ci moom ngir nit ñi xër ci liggéeyal ko mhm. dane mhm. suñ borom defal na ma feex la mu daarixu la indi ñu jàng arab yukkurimu laax wallaahi yukkurimu li man yazur képp koo xam ne yaa ngi may siyaare suñ boroom day yokk say teraanga teraanga nag yaakaar naa Mamadou kenn ku bëgg doo ci doyal ci lu wér moo tax duñ doyal ci siyaare sëñ dëgg la <laughs> wax na feneen tam ne <laughs> uh-huh. wallaahu bi di man yazur ku may siyaare tam yàlla dalay yokk ak jub te booy ziare ji doo yóbbu loxo yi ne da nga mhm. yóbbaale hadiya njariñu hadiya moom defe naa buñ ko doon lim du jeex wallaay ndeysaan daañ ci ñëw ndax hadiya mhm. ne al hadi hadiya mhm. hidaaya da nga jox hadiya suñ borom raxas sa xol fóot ko ba mu set def ci jub dëgg leer la kon addiya ak ziyaara ak cofeel cofeel gi tam niñ ko waxee li ci sëñ Touba wax ci xasidaam mënta jeex yow mi ko yow mi ko sopp sëñ Lamine wax na ko léegi Touba na abdi murin sarax la ba mu jeex sopp sopp ak hadiya ak ziyaara ci mm-hmm. nitu yàlla mm-hmm. la nga ci mën a jële mën ay mm-hmm. ay rakk rek mënu koo joxe kon yaakaar naa ziyaara moom waaw li ci sëñ Tuubaa wax ak li nga xam ne moom la ci nit ki mën a amee am na ci sax borom wilaay borom wàll yu boo xam ne waaw wax na ne sëñ Fallou sax moo fa demoon sëñ Moustapha Mbaye wax ko bayit yu am solo mhm. lillahi qawmun mhm. ida hallaw bi manzilatin mhm. hallal nada wa hallat fil jawwi anwaaru daane tastaquhum kullu ardin yanziloona yanziloona biha ka annaha li biqaaxil ardi am taaru mu ne am na doomu aadama yoo xam ne suñ ñëwee ci sa bërëb wàcc fa rek xiiwal suñ boroom day wàcc leeri suñ boroom day wàcc bu mel ni suuf su mar xiiwal ga mel fa waaye ñoom buñ fa wàccee la wax. léegi nag yow boo demee siyaare ji leen nag. Ah, waaw moo tax mu ne ko. Mhm. ba mu ko waxee mu ne ko. mu ne ko mu ne ko Isa mu ne ko bu fekkee ne da nga leen a ziyaara. Mhm. Isa laqitahum aw kunta zairahum mhm. bi yumnihim faaraqa dahru aw zaaru. ñooñu dey ñooñu nga xam ne bu ñu wàccee ci béréb béréb ba day naat day xiwale day yokku. Euh, leer yee fees dell. mu ne ñooñu day boo leen boo dajeeg ñoom. Isa laqitahum laa. soo dajeeg ñoom rek. wala nga dem far siyaare ji leen. xam nga mm. nu dañuy siyaare si sëñ bi. waaw waaw waaw nee ci barkeb <laughs> gaa yu baax yooyu bakkaar boo mos a am. ci ñu far ko ñu far ko waaw. loolu wax nañ ko ci biir waxtaan mu teg ci ne nag ñoom sax bu day day barke ba nga siyaar ga leen siyaar suñu borom da lay defal. Mm-hmm. barke ci gis gi nga leen di gis. ak xool gi ñu lay xool. da lay defal teraanga. Mm-hmm. kon yaakaar naa njariñu siyaar ci yoonu murid moom mm-hmm. aada la moo tax nag. ni ko sama euh, sang yi waxee. moo tax mag ñi njëkk a topp Sëñ Tuubaa. dara lu leen mosee tee mhm. jóg siyaar yi sëñ Tuubaa musta am te am la ndax seen bakkan lañ ci daan teg mhm. cofeel gi ne na waral dem siyaara ji ko waaye itam lañ njariñ la ak ni ko sëñ la muy waxe yërmande ji nga xam ne day dotti ko ci sëñ bi dem ci ñoom ak mhm. leer gi loolu it tax na gannaaw bu cofeel gi amee dara mënu leen tee dem ci siyaar yi sëñ su tànkee nag loolu lay jéema loolu lay loolu lay dundal waaw ci seexul xadim ndax xam na ne sëñ Muntaxa mii day luñ ko sant doyut mhm. luñ ko ziyaara doyut mhm. luñ ko addiyal doyut ndax kenn ku ne xam ne sagub islam la waaye sagu yoonu murid la la ndax euh, defe naa fan yu lëndëm yi fi xew képp mhm. waran bu ñëpp noonu jàkk sëñ Muntaxa xool ko ni mu téyee diina ji te sëñ Moodu sëñ euh, yant bi wax na sallallahu alayhi wa dafa wax ne waaw laa tazaalu taifatun fi ummati zahirina ala alhaq la yadurruhum xilaafu man xaalafahum sëñ Tuubaa sëñ ba bi dafa wax mhm. ab kuréel mhm. du des di nekk ci sama xeet wi mhm. ak lu jamono yàqu-yàqu di feeñal dëgg ni ko sëñ Muntaxa defee di ca sax waaw nee na ñoom nag lim boobu li muy tuut tuut ku wuuteeg ñoom ci jamono loo am am kàttan doole mën a lor kon li fi jaar lépp sëñ bi mi ngi ci te diine ji di ko doxal di ci woote di ci soññe kon moom kooku nag kon bu ñu di ko siyaare ji dañ koy santi ah, waaw yeesaliwaat pas-pas bi waaye daal ci gàttal daal li nga xam ne mooy njariñu ziyaara daal mm-hmm. ba mënuñu koo muñ di dem mm-hmm. mënuñu ko lim mm-hmm. waaye cofeel gi xool gi ñu koy xool rek mu xool nu rek waaw ñu amee ci liñ doon wut lépp ndax suñ wax na ko ci bayt bi wax ab loxul mun naa bi jaay Zaynaba képp ku ma siyaare si na nga ko jéggal waaye na ko may mébétam feneen fa dafa wax ne li kulli man ahabani aw saara jut bil muraadi la wax képp koo xam ne sopp na ma ba tax mu jóg siyaare si ma moom Seexul Xadim loolu la ba tax mu si ma mm-hmm. Mm-hmm. judd bil muraadi na ko may la mu bëgg lam ca fos ah, waaw kon nag wax fii aw saar te fegal koy bàkkaar mm-hmm. kon yaakaar naa buñ waxee njëriñu siyaare rek war naa tax kenn ku ne mu jaral la nga jóge bitim réew ah, waaw jóge xuus dex yi ni ko fa Fallou waxee uh-huh. billet bi moom lu mu jar faale woo ko ah, euh, boo doon xuus ci leen faale woo ngir rek ñëw mhm. siyaare ka nga sopp te Sëñ Muntaxa lañ sopp Sëñ Muntaxa moom boo ko waxee tudd nga Sëñ boo nee Sëñ Tuubaa tudd nga Sëñ Tuubaa la waaye nag dafa am leneen lu gën a am solo loo xam ne nii dañoo dal ci siyaar bi muy ñu koy defee ci dëkkub Sëñ Tuubaa bii nga xam ne dañu mhm. wàcc xal hu ya rabbi ahabba maskani mhm. fii ardina laka walil maahi sani te Sëñ Tuubaa dañ wax ne daan wax ne lu mu waay defal lu mu mën a doon defal ma ko sama dëkk bi moo ma gën a ah, mhm. kon nag buñ ko dee siyaari ci dëkk bi nga xam ne wax na ne ñaan suñu borom mhm. mu defal ma ko mu dëkk boo xam ne moo gënal yàlla ci kaw suuf gënal yonte ci kaw suuf mhm. waaye wax nag ne wal taj xalal xaa zaat nu ko an taj xaloo daara tuqaa wal ilmi wa diini wa dëkk bii nga xam ne fi lañ ko siyaari dane ñaan naa suñ boroom mu defal ma ko muy kërug ragal yàlla waaye mu defal ma ko muy kërug xam-xam mhm. waaye mu defal ma ko muy kërug diine ah. li mu doon kërug diine moo tax bi bi jamono yu lëndëm ñëwee mhm. sëñ mun taxaa teg tànkam foo xam ne ku dul moom tegu ko fa dëgg la ci àddina bi <laughs> waaye defal ma ko nag daar daara irtiqa kër goo xam ne boo fi ñëwee rek sa itte sa pas-pas ci yàlla da yéeg di yokk jëm kaw dëgg la bu daareel irtiqa wallaahi waaye sëñ Lamine mhm. sëñ bi lu jiitu loolu sax dafa ne uh-huh. wa maskanit al maskanam mubaraka mhm. wa sayira ni saalika wa naasika mhm. wa naasikan wa saalika ñu ngi ko waxee benn la dëgg la dana sama dëkk bii di Touba ñaan naa lay suñ borom nga defal ma ko muy dëkku barke mais dëkku barke waaw waaw lii sëñ bi ne ku fi ñëw <laughs> dëkk fi uh-huh. nekk fi lu neex yàlla uh-huh. sa jaamu yàlla ajuma ko ci la sa àjjana ajuma ko sa jaamu yàlla waaye la ngay dunde mhm. ajuma ko ci saw ñaq dëgg la wan fil wabaa wal balaaya kullaha mhm. anha wa tayyib shurbaha wa klaha nee na sama dëkk bii di Touba mhm. lépp luy balaa lépp luy mbas suñ borom dàqal ma ko mu génn dëkk bi waaye nag wa tayyib shurbaha wa klaha lépp luñ fiy jëfandikoo rek bu dee lekk bu dee naan na teey na na sell ba àgg ci ne sama dëkk bii day suñ borom ñaan wa arda hujjaal arda risqin wa amaan mhm. suufus dëkk bi ñaan naa la nga def ko muy suufus yërmande mhm. wa amaan ak suufu sécurité suufu mhm. mucc wa rahmatin defal ma suufus dëkk bi muy yërmande suufus yërmande wa saatin defal ma sama dëkk bi suuf si di suufus barke loo def rek ma yokk waaye li ci gën a neex nag ku la awaan la wax saa yu ne fekk addunaa ngi am bu loolu yi dañ mhm. ñu ko koy defal na kon ci dëkkam bi wal taj alalha zaata eh, imtilaa i nooran wa rahmatan bi leen taay bay wow waaw mu ne defal ma sama dëkk bi mu fees dell ak leer bay feññal ah ak yërmande wallaahi bi leen taay bu mu am wallaahi wallaahi nag foofu lañuy ñuy siyaaree Sëñ Tuubaa mhm. Sëñ Tuubaa wax ne mhm. dafa wax ne sama dëkk bi day rammu sama xasida day rammu sama ndox mi day ram <laughs> kon nag loolu nag buñ ko amee ci ci ci ci ci sëñ Tuubaa eh. kon luñ ko sant doyut wallaahi luñ fi ñëw doyut dëgg la duñ ci gis ko wallaahi duñ doyal ci saara wér na lool lii mu waxoon ci sar saara eh. mag ñi fii leen daan joge eh. dox wuti wuti gànnaar ah, di ko siyaara ji mm-hmm. di yenu ay yenu yu diis mm-hmm. di dajale ay addiya di dem wallaahi te ñooñu ñu noo gën a bëgg sëñ Tuubaa ndax dane sëñ bi dane bu leen kenn mag ci sëñ Tuubaa sëñ mm-hmm. Muntaxaa Mhm. sëñ Muntaxa mooy koo xam ne boo ko ne jàkk rek sa mhm. itte yëkkatiku sa cofel ci yàlla yëkkatiku dëgg la kooku nag buñ ko dee ziyaara yi mhm. buñ sañoon sax moom ku la sànqa rek waaw waaw <laughs> waaye nag mu dañ ne ziyaara uh-huh. na ni sëñ ko ne jàkk mu doon daw mille deux mille la ñu wallaay ci lu wér jërëjëf sëñ Souleye du ma guddal waaye daal siyaara daal sëñ sëñ Muudu dafa doon koo xam ne yërmandeem uh-huh. yoon yonent bi rek mandaxe ñuy màndaxee yërmande wallaahi wallaahi xam lu tax waaw am ñoo xam dañu ñëw nëbbu seen bopp ba dem ci nit yàlla yi <laughs> sëñ Tuubaa nag dafa nëbbul boppam dafa wone boppam te lu mu ci wax des na wallaahi ci lu wér mu may ma rek bu nee waaw minal xadimi mhm. ilal maxdoomi miisaano mhm. mhm. laa yantahi ajruhu kay lu mu miisaano nee na man de liggéeyal naa rasulullah sallallahu alayhi liggéey boo xam ne la ma cee amee ci pay du lu ñuy peese peese attanu ko maanaam balance attanu ko. Ah. waaye du lu ñuy natt itam kaylu. Mm. ndax xëju ci ndab lu ñuy natt. Mm. kon kooku bu nee ku ma siyaare am nangam. Mm-hmm. war nañ ko gëm. a ah, ci lu wér wér ci lu wér. bi mu ne nag maddaliyal xaqul mubiin. Mm-hmm. maa lil bariyati yabin laa. Mm-hmm. wa maa li xëyri laa yabin min bushari wa naam. ñaar yooyu rek waroon war naa tax itam. kenn ku ne jóg siyaare ko suñ tubaab ne. yàlla suñ borom. mi nga xam ne mooy al xaqul mubiin xaqul mubiin mooy. koo xam ne loo xool rek boo hmm. amee xam-xam xam ne mu tegtal la yàlla. dëgg la ne xàqul mu bin moomu nag jox na ma xiiwal ak i mbég yoo xam ne dana fës ba àdduna sépp teg ci seen bët. ma waaye nag wamaale xëy yi hmm. laa yabin suñ borom liggéey boobu. jox na hmm. ma ci xeeti mbëg ak xiiwal. Mudu. waaw Bouchar mooy jamono Bouchara. wallaahi. neex ma. mooy jamono neex ma. dëgg eh, matu. mu ne nag xeeti xiiwal xeeti mbég suñ borom jox na ma ci loo xam ne. ci man la yem man rek maa ko xam waaye am na ci loo xam ne fekk addunaa ngi am nit ñi di ci teg seen dëgg la jumaaye Touba bi teg na euh, firnde ci waaw dëkk bi firnde la ci dëgg la ndax 1963 na ci a baax a baax leneen leen kon daal ci gàttal booy siyaar yi da ko yóbbaale njëriñ addiye moom bu ci sëñ la mi duggee wala daañ ci ñëw kay bëgg naa ñëw ci kon daal loolu moo tax <laughs> mënuñu muñ siyaare siyaare bi te duñ doyal ci siyaare ko wallaahi ndeysaan waaw kay jërëjëf jërëjëf sëñ Elimane Sarr ñu ngi lay santaat bu baax a baax a baax sëñ Fallou euh, sëñ sëñ Elimane daf cee tudd kon ñett yoo xam ne daanaka man nañ ne euh, dafa nekk taw tawféex lool ci ci ci ci ziar benn bi Cheikhul Khadim ndax moom la ñuy moom la ñuy fekk si euh, beneen bi ci des mooy Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne si moo dox euh, ci diggante moo moo toog jotaayub euh, Cheikhul Khadim te seen diggante ak moom yaakaar naa kenn werante wu ko beneen bi ci te des tamit nga xam ne mooy ñetteel bi mooy kon pàkk bi nga xam ne moom mooy Touba kon ñu am tawféexi di ñëw fekk ci Cheikhul Khadim am tawféex it fekk si ki nga xam ne si moo ko fi nekkal muy Cheikh Mouhamadul Mountakha am tawféex yit di ko defee ci dëkkam bi kon muy ñetti condition yoo xam ne benn bu ci nekk rek daanaka boo ci jëloon bu nekk rek jar na def euh, jar na def li nga xam ne si moom mooy ziara bi. waa sëñ Modou. Mhm. Euh, xam nga alal. waaw. dafa mel xam nga moom lay wolof. alal dafa sax ci. Mhm. Euh, Mhm. alal dafa da maanaam euh, euh, dafa sax ci xol. Mhm. waaye ñun de sëñ Muntaxa. waaw bëgg nañ koo woon lu dul yow. Mhm. lu yow rek lan bëgg. dëgg la. alal du tax ñu zia euh, du du ñàkk tax ñu ñëw. lu nu am lépp danañ ko buub. ñëw ni la ñingu ñii. ci dara bëgguñu dara. yow dong lañ bëgg. wallaahi wallaahi. bu ko defee nag mu xool ñu bëtu yërmandeem yooyu. te ku ne xam na ni. moom la lii ya ya yàgg na noo xool bu yàgg yàgg. ci lu wér a wér. donte nag mënuñu koo fay. Mhm. waaye lépp luñ am. Mhm. yéene. Mhm. lépp danañ ko diigal. ni ko ñoo ngi nii. wane maanaam suñ yéene. ak euh, xam li nga xam ni moom la làmboo ndaxte sëriñ bi dafa wax ni. waaw ilayhi xaada ma faraa. isbul ilaahi man adaamul biraa. ñi nga xam ni. ñi gën a baax lañu mm. dem jëw jëm daw di ci wut moom suñu boroom indil na ko loolu dëgg la te kenn euh, werantewul ni loolu lépp mi ngi euh, ci seexul Muhammadul Muntaxa mu téye te ñun ci lool lan la ñuy bëgg moom la ñuy wut si dëgg la moo tax bëgg mm. nañu ñëw ni ko ñun mm. daal mm-hmm. ñu ngi mm-hmm. pare nag di ko defee nag ci Touba. Mm-hmm. ndax leneen lu ñuy defee feneen ah. defe ko fii moo gën dëgg la moo tax dañuy ñëw kon ci dëkk bi ñu ko ñoo ngi nii ñun daal xooluñu dara mm-hmm. yow lan bëgg mm-hmm. yow la ñuy ziyaare mm-hmm. tawféex yi nga xam ne nag moo nekk ci ziar ñaan suñ borom uh, dajaleen ñu ci lépp ci ziar gën koy uh, ziare nii waaw kay jërëjëf sëñ Fallou uh, ñu ngi lay santaat bu baax a baax xam naa danañ jox nag ci sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ndax ni ma leen ko waxee woon léegi rek euh, ñoomit dañoo jóge bitim réew euh, fas yéene ñëw euh, bokk si ci li nga xam si moom mooy ziyaara bi joxe seen addiya naam lañ leen topp lañ ci ay sas yëpp ñu matal ko waaye dañu loolu doyut faaw ñu dem ànd jeeg waa Sénégal xam ne moom mooy siyaar bi teew ci kanamu sëriñ bi luñ fay wax ñu dégg ko lu lu fay jóg ci ñaanit ñu ñu ñu mën caa barkeelu na ñëpp loo tax suñu moom la mi nga maa joxal kenn rek ci micro koo rek baax na su ko defee mu présenté wu wax ñu tamit jan daara la jóge ah sëñ sëñ Amath porte parole waaw kon nañ jox euh, euh, sëñ Amath Gueye waaw mu ngoog euh, ñu suñu kon sëñ Limane Sarr mën nga koo jox jot li ñuy mara bi ah wala mu déplacé wu ñëw waaw damaa xamul waa régie lu leen gënal mu déplacé wu ñëw wala mu toog foofu waaw nee na mu mën a déplacé wu nee nee na mu déplacé wu ñëw kon mën naa ñëw nii sëñ Amath Gueye bu Guinée Bissau bu ko defee moom it euh, sëñ Amath mi nag jotoon ngeen dégg ay kàddu soññeem yaakaar naa ci biir émission ziar bi nga xam ne doon nañ ko def euh, indi woon na ay soññe am am am solo euh, waaye tey kon gannaaw am nañ tawféex yi mu toog nii ak nun den ak nun faaw rek mu indi tamit moom it ay kàddu yu yu yu yoo xam da koy dolli rek ci li mu waxoon lépp rek mu jëm ci soññee ci li nga xam ne si moom mooy ziar bi sëñ Amath ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax a baax ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi. barke borom Touba mhm. barke borom Touba. Mhm. kon ñu ngi siyaare mbooloo mi yëpp. Mhm. di balaax ñëpp di leen balaax. waaw ah, ci li nga xam ne moom la ñu seq. moo ñu fi indi bàyyi ñu fi muy liggéeyal sëñ Touba. di ci tàmbalee. li ñuy woote muy siyaar di siyaare ñëpp. képp ku fi toog. ci plateau bi. di ci jiital ku tedd gi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan yàgg fi lool te wér. amiin yaa rabbal aalamiin ci barke sëñ Touba. allahumma amiin. di ci teg suñu responsable moral. Mhm. sëñ si Diop. Mhm. ndax tawféex ji ñu am xëy na. Mhm. ni ko sëriñ bi waxee. dañoo am tawféex. dëgg la waaye mu ne it dañ leen sóob. ci leen soob moo leen di womat. kon donc ñun. li ñu war a def li sëriñ bi wax mooy. nosu. nosu nag kenn ku nekk xam na ne ci bakkan lañ koy def. waaye nag lay tax muy dox mooy day yolom. dëgg la. ndax ñu ko defee ci bakkan lu mel ni ab jaaru la. Mhm. soo taxawee mu dëgër mën naa xëtt te bu xëttee mën nga faa des. dëgg la kon nañ nangu. Mhm. loolu nag mooy lan mooy nangu. Mhm. waaw yi. loolu yëpp nag bu amee. Ah, siyaar. mën naa daal di ñëw. dëgg la. siyaar bi nag. sëriñ bi am na sax lu mu ci waxoon daf ne. waaw cëslaayu yoonu mu dit addiya. te yaakaar naa kuy def siyaar di nga joxe addiya. waaw ah, ci lu wér-wér. <laughs> donc ñu ngi fàttaliku. ba ñu eh. nekkee tout tànk. Mhm. daan nañ gis mag ñi di def toolu toolub ba nga xam ne. képp koo xam ne mun ngaa dem ca tool ba. Mhm. xëy na dara mën na laa bañ a wàcc. ci li ngay joxe waaye ku mënta dem. Mhm. danañ dem ba fekk la fa nga nekk nga joxe dara muy ndoxum tool mu dem ca tool yi. te yaakaar naa loolu yëpp addiya la. wallaahi. kon donc. Euh, siyaar mooy li nga xamante ne ñun. ci daara Hizbut Tarqiyyah de fi la ñu ko nampé ni ñu ko ni ñu maanaam li nga xam ne moom lañ ci xam dëgg dëgg ci mhm. siyaar mhm. fii ci daara Hizbut Tarqiyyah lañ ko dëgg la ndax nekkoon nañu sax mhm. ay murid yuy siyaare waaye dañ jàppoon ne bu ñu amee ñaar téeméer juróom rek la ñuy joxe addiya fukk li ci des dañ koy denc ñun lañ xamoon waaw loolu lañ doon dund nag waaye nag bi ñu sëñ bi dimbalee ba sóob ñu di ñu omat bañ egsi fii ci mbooloo mi ci lañ tàmbali nag. fàkku na ko mag ñi daan defee ñi daan nag sëñ Tuubaa. parce que dañ daan xëy. lu am yóbbu. dëgg la su ngoonee. lu ñu am yóbbu. dëgg la su mhm. lu ñu am yóbbu. Mhm. taaw ñuy def is bu tarxee nag. Mhm. kon dafa mel ni dafa mbokk ci mag ñooñee. bi ñu fi ñëwee nag. ci ah. lañ tàmbalee xam ne ndeketee. ñun waratuñoo fob li gën. di ko téye. fob li nga xam ne lu di ko jox sëriñ bi waaye nañ fob li gën jox ko sëriñ bi mooy mm-hmm. siyaar ba tey dëgg la addiya mm-hmm. kon euh, sëñ Modou waaw ñun daal mm-hmm. sunu pas-pas ak sunu yitte ak sunu yéene yëpp fas nañu jooyale ko siyaar bi nga xam ne euh, ni ko responsable moral waxee yaakaar naa buñ ci jógee jàpp nañ ne du ñun sax waaye kuy jullit waaye nag mën nañ wañ a wax sax kuy jullit mën nañ wax ne képp kuy doomu aadama ndax sëñ Tuubaa comme dafa wax ne irham jami alwara mhm. kon ñun dootuñ mën a em ci ñun déedéet déedéet parce que irham jami alwara ku ko xas <laughs> wallaahi nekkatul loo xamante ne da nga ne mhm. waa isbu tarxiya la kon ñëpp la ci bopp ñëpp ci waaw kon siyaar bi nañ ci fasaale ñëpp mhm. ndax kii fi nekk moom kenn ku nekk xam na ne barki démb lii mu def waaw yéen ñëpp teg ngeen ci seen bopp muy li fi xew la gis naa som ñoom sëñ Lamine Diouf wala sëñ dem ba. Mm. waree la fu ne. dem ba euh, nu mu jaww dem ba Casamance. Mm-hmm. ci loo xam ne euh, gis naa ci koo xam ne daf ne sax moom mm-hmm. moom de defoon na benn plainte ba doon ko topp waaye bàyyi na ko. Mm-hmm. dootu ko waxati mukk. ndax jëf ci sëñ Mountakha def. donc kii ku jar a siyaar la. wallaahi comme ñun nag yàlla dimbali nañu. ñu am tawfaxi am yi euh, yitti ji toll ni taxawal. Euh, siyaar boobu. Mhm. ci luñ man ak luñ mënul. Mhm. nañ fas yéene nag ni ko responsable moral wootee. Mhm. fasaale ci ñëpp. kay kon loolu daal mooy li nga xam ne. moom la euh, ci njiital nag. Euh, maa ngi wax waaye dama waroon a njëkkee sax nuyu sama jëwriñ ji di sëñ Ilimane <laughs> Sarr maa ngi jégalu <laughs> ndax moom. wax dëgg yàlla. ñu ngi koy sant bu baax. taxawaay bi. yitte ji pas-pas bi wallaay rafet di ñu soññ saa su nekk cellule à l'étranger wallaay ndeysaan kenn ku ci nekk waxuma li muy wax ci groupe waaye kenn ku ci nekk dina la woon naan defal mm. lii waxal lii dëgg la dëgg la te lépp lu jëm ci amul kenn koo xam ne dina la woo ci ñun ñi ñëpp mën ko seere wax la ci lu jëm ci boppam lu jëm ci liggéeyu sëriñ bi rek wallaay wallaay ba tey ñu ngi ko ci sant la di sant nag bu baax a baax a baax a baax ci loolu. Mm-hmm. ak mboolem waa Daara is bu tarx yi nekk ci bitim réew. Mm-hmm. comme dañuy wax ci bitim réew. xam naa mën naa waxee noonu. waaw waaw waaw bu baax a baax. waaye mën nañ ah. sant ñëpp nag. Ah, waaye dëgg la li ñuy wax ci wàllu bitim réew daal. Ah, ñu xam ne daal sëñ Mor. Mm-hmm. ñun daal. Mm-hmm. ñëw nañ. dëgg la ok. woote sëriñ sëñ bi sëñ sëñ responsable moral. Mm-hmm. sëñ wuti woo sëñ Yuusu woote na. woote na waaw. responsable yëpp ñëw nañ ci. daara Hizbut Tarqiyyah yi nekk ci bitim réew. ndeysaan ak képp koo xamante ne suñu am di jàmb la. ak sunu xarit. ak koo xam ne sunu dëkkandoo la. dëgg la fexe nañ ba mu si dëgg la ndax euh, dañuy jàpp ne xéewal ji. Mhm. Euh, war naa mën a egg ci ñoom. ah ci lu naa ne kii ñuy siyaare muy sëñ Mouhamadou Mountakha. waaw foofee lay woote. wallaahi ci lu ci lu ci lu wér. Mhm. bi yëpp lay woote. Mhm. kon euh, foofu daal mooy fi nga xam ne yaakaar naa. waaw waaw mën nañ faa tënk. dëgg la. di siyaare ñëpp. encore. baatu siyaar. di balaax ñëpp. dëgg la di balaax. di wax ne liggéey bi nag. dañ ko yëkkati ca kaw. wallaahi ndeysaan bañ a laal du laal suuf ndax moom ba mu yëkkatee loxoom yi keroog wax ko. waaw laal suuf. kon li ci des mooy ñun. nañ fexe nag kenn ku ci nekk. yëkkati ko. dëgg la fekk ko fa incha allah. Ah, waaw kon jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Amath Gueye koy santaat bu baax a baax euh, yaakaar naa kàddu yi euh, jóge na ci euh, moom waaye dugg na ci xol yëpp. mu ay kàddu yu ama am am am solo ñëw dollee ko rek ci li nga xam ne fan yëpp ñu ngi ko doon wax dollee ko tamit ci li xam ne moom joxe woon na ko ci ay soññee euh, ci jamono yi passé xam naa bu ñu mënee joxaat tamit euh, keneen euh, koo xam ne rek tey ci wet gi waa wet gi peut-être bu manee nekk wala su mënul nekk tamit bu ñu amee wet gi ba tey baax na waaye ñu am keneen koo xam ne si rek mën na soññe si Lamine aca ah, sëñ Mohamed Ndiour ana ana sëñ Mohamed Bré sëñ Mohamed Dieng daa daa daaray Brésil waaw mën naa mën naa yegg si nii an anam anam ok sëñ Mohamed bisimilah. bisimilah waaw kay aja bisimilah sëñ sëñ Mohamed waaw maa ngi siyaar ñëpp di rafetlu liggéey bi Mbour nga lay sant baax si nga taxawoo nga di taxaw émission bi am na solo lool walaay ñëpp ñooy seede li ngay def liggéey bi dëgg la ñu ngeen si roqare farasi koy njort allahuma amin amin ni nga si ziar bi ñun moom dañoo jaayante liggéey Sëñ Tuubaa gi ni ko Sëñ Muntaxa waxee rek ñun bu leen bu leen bu leen kenn nangu maanaam bu leen bu kenn nangu mag la ci islam kon ñu fa taxaw ñun moom bi ñu bi bi bindoo ci traxee rek. Mhm. la ñu fas yéene doon son laar ba bés la sa fu ñu oo jekk nañ. xare bu ñu oo nag. saa yu yeewoo dañuy gën a mar sëñ Tuubaa. wallaahi wallaahi traxee boo fa nekkee saa soo mar. wallaahi wallaahi incha allah. tey ko tey fii ci suñu suñu son laar kon nag ginnaaw si. Mhm. waaw. ginnaaw kilifa mhm. mhm. bi si. waaw dafa dafa mel ne sa micro dafa dafa fay waaw xam naa jëla sama bos. waaw ah, ah bisimilah bakk sëñ Tuubaa kon jàpp naa ñu ngi rafet lu baax sëñ Mour si si liggéey bi bi ngay rafet di ngay def dafa rafet lool si ziar bi ñoo ñaan sëñ Tuubaa dafa kër njott ndax man mii si fan salaaman dama lay bëggee bu baax a baax da ngay defal liggéey bi waaw waaw xam xam naa euh, bëggoon naa xam tamit maanaam foofu yéen ci euh, daaray Brésil. waaw ak euh, ñi nga xam ne ñoo nekk Amérique latine lépp. Mm. xam naa sëñ Ilimane Sarr bokk na ci ñi nga xam ne si ñoo koy coordonné. Mm. ci liggéey bi. waaye yéen ci biir Brésil ci boppam rek liggéey bi foofu nan la fay demee ak it bi ngeen déggee ziar bi mu jóge ci lamiñu responsable moral. Mm-hmm. nan ngeen accueillir Noël bi. ak nan ngeen ko doon waajalee ba agsi fii tey. waaw waaw sëñ Modou waaw comme ni nga mm-hmm. waxee rek. Mm-hmm. ñun moom dañoo dañoo dañoo toqi ci liggéey Sëñ ñun moom bi ñu bindoo Ibtirax rek jekk. front bu ñu oo rek. Mhm. jekk nañ. bi kilifa gi kilifa kilifa gi waxee. Mhm. ziar rek am am na ñu naan ziar bi dafa xaw a bettee eh, ak eh, crise bi tollool jamono neexut ak yu demee noonu. ndax murit moom xam na loolu. maanaam loolu la mooy mbuut la ndax jekk si loolu la ñu doon doxee. ndax bazaar koy song. waaw suñu borom dafa weer yëpp jël weer xam weer bi weer doole doole naan nga xeex ko te biir bi bi may bi xare bi en plein guerre. suñu borom wàcc ndimbalam kon ziar bi ku xool. Mhm. bi nga ko songee. Mhm. si biir song bi. Mhm. a amoon nañ ramadan. waaw moo xam ne nu mu méttee. ak yu màndal. frais nu mu am. waaw budget bi lu mu toll. ay millions la dëgg la ak kër xaside yi xam ne liggéey bu mag la. du liggéey caaxaan. waaw kilifa jëriñ daara yi xalaat ne ziar. kooku xam ne kooku borom fit la borom gaynde la. dëgg la dëgg la ñu xalaatee. jëriñ mbool bi sëñ Muntaxa Mbàkke moo jàpp bés. jàpp barab. kon fa xam ne alafun bu wàcc na. wallaahi wallaahi te bi ñuy bi bu doon bu doon bu doon chaque mois ziar dañ koy def. Ah, waaw ndax ah, ñun moom la. Ah, maam mbir yi nong nongo la rek. waaw moo rek moo tax sëñ Modou. waaw waaw <laughs> ci lu wér ci waaw waaw jërëjëf jërëjëf waaw waaw. baax a baax a baax a baax. moom moom moom Iftaraxee moom. day doon day doon daan day pàkkatu sëñ Tuubaa. waaw su ma borom fay sëñ Tuubaa. Hmm. du du du murit islam gépp la dëgg la. kon ziar bi daanaka ñun membre yi ñu ngi waaye ñëpp si barkeelu wallaahi wallaahi kon nag ñooñu santaat bu baax a baax dëgg la dëgg la ñaan suñu jëwriñ boobu suñu aatu mm-hmm. suñu borom yokk leeram xéwalam suñ jëwriñ sëñ yuusu nga xam ne tey waaw mu taxaa waxee boo gisee yuusu gisee sëñ aatu waaw kon jàpp naa liggéey bi moo tepp soof la rek wallaahi a baax jërëjëf sëñ Mamadou Ndiour ñu koy santaat bu baax a baax mu nekkoon daare Brésil euh, yi ko ci am solo moom tamit ci wàllu ko soññee rek euh, sëñ Mamadou Lamine xam naa kon mën nañoo avancé waat ba ci kanam tuuti bu ko defee ma jëlaat ñeneen euh, su ko defee ñuy dugg nag ci baatu addiya wax léegi rek ne xaw ma sëñ Limane Sarr muy que ne kenn mënta wax ziar te waxoo addiya maanaam tey sëñ bi boo ñëwoon dox ba mu yàgg ñu ne la sëñ baa ngi ci biir kër gi sax boo duggee di ko ziyaara faw nga làmb dara mhm. ndoo ko nuyoo loxoy neen euh, ci addiye jooju taxawaayam ci ki nga xam ne si moom mooy làmb poosam di joxe lan la ko mën a jural ak lan la ko mën a fanqal ak it mooy lan laa bëgg nga dellu si lu ma ci waaw jërëjëf euh, sëñ Modou mhm. euh, ñuy sant bu baax mhm. sëñ Mohamed Ndiour mu indi soññee boo xam ne dafa indi li nga xam ni mën naa ni mooy togg murit bi ba muy jóg jëm ci sëñ Tuubaa <laughs> loolu nag daf ci am lu am solo mooy taxawaayu daar yii tey ci bitim réew balaa may ñëw ci àddiya ji sëñ Amath Gueye mi wax Guinée Bissau la jóge mhm. mu dend sëñ Maam Thierno Sow mhm. mu bàyyi ko Espagne sëñ Abdou Lahad Ngom mhm. Italie sëñ Mody Niang Côte d'Ivoire sëriñ Bada Thiam États-Unis uh-huh. sëñ Matar moo ngi noonu jógee Mali uh-huh. sëñ Mohamed Ndiour mi doon wax Brésil la ne uh, sëñ Ibra sëñ Ibrahima Ibra Sarr uh-huh. États-Unis sëñ uh, Omar Diop États-Unis uh, waa Guinée Bissau am na ñu ma gis sëñ Ablaye Kane ngi ni Espagne ñoom sëñ Modou Seck Gabon États-Unis Italie ba Canada ak fépp waaye daara yooyu tey bu ñu waxee ziar yaakaar naa am na ci ñoo dégg ñoom suñu ablaat seen dégg nga seeni kàddu kaddu waaw day euh, léeg nga ni sëñ léeg nga ni sëñ Amadou Sidi Samb yéen nag xam naa ni Touba dafa mel ni tàng ngeen waaye mel nañ tam waa bitim réew kenn gën leen tàng wallaay loolu nag moom la daar yii di liggéey ci isbu tarxee barab yoo xam ne dañ fay tàggat ay murit ba ñu bëgg sëñ Touba dëgg la ba nangu koo jox seen lépp ba duñ dese dara bu ñu teewee tey waa bitim réew dañuy jàpp ne liggéey bi ñoo ko war a def fasaale gars yi daara ci biir réew mi mm-hmm. di bañ ñoom it mm-hmm. loolu nag day fàttali la doxoon diggante muhaajirin ak lansaar yi keroog badar yoon bi saasam ba mu wootee mm-hmm. saxar ibnul muhaas bu mu génnee wax ibnul aswad dafa jël kàddu gi wax seydna omar wax ñu xam ne mu xam ne gaa yi kat maanaam duñ ma wor du ñu dugg ba ci biir ñu rocceeku. waaw du ñu dese dara. Mm-hmm. waaye it du ñu dëpp. Mm-hmm. du ñu taxaw du ñu dellu ginnaaw. Uh-huh. sëñ Tuubaa mi leen xam tagg leen ci tanaazuhul mawta maha loolu nag murit bu bëgg siyaare ji. Mm-hmm. day baax mu am foo xam ne fa lay tàggatoo. Uh-huh. fa lañ koy tàngalee ba ba ba yaramam tàng jër. la boyal ko ba mu boy. beesal yitteem taxawal ko. ngir bu ñu woote ci sëñ tubaa bu ñuy dem du ànd ak sago dëgg la yi nag loolu lañuy ñuy jëriñ ci bitim réew nga xam ne tey li gën a yéeme mooy mhm. day am jëmm yoo xam ne barab yi nga xam ne moom la ñuy am da ci soññante ci sëñ tubaa mhm. maanaam boo ciy dégg seen kàddu mhm. dangay ngay defe ni ñu ngi ci roon jumaa ji maanaam keppaaru euh, soroor bi mi ngi daal ci seen kaw te fekk na boo leen xooloon tey ndax fi misaal bi mooy sëñ Abdoulaat seen uh-huh. mi nga xam ne soññee ba mu soññee Canada dugg na ma lool ma nga nekk ci Edmonton diggante foofu ak fii uh-huh. nangami mi kilomètre la uh-huh. gars yu baax yi yëpp ci sa ginnaaw kenn ku ci ne digganteem ak Sénégal lu mu néew néew ñetti waxtu la wala ñeent ñi juróom ba ci juróom benni waxtu kon sore nañu lool la waaye nag suñuy xol dañuy mel ni ñu jàkkaarloo di séenandi daara yi loolu lool loolu lay liggéey kenn ku ci nekk barab ba nga ne saa yoo fa demee dinga nga dund ndonuy sëñ Tuubaa yi ndax koo ci dox tey dajeeg moom ci mbedd Rio wala Atlanta wala wala wala wala Fens wala Bamako wala feneen dinga xam ne taalibi sëñ Tuubaa ngi nii muritu sëñ ngi boo xam ne uh-huh. ni gisee jëmm ji noonu la la la lépp mel uh-huh. loolu nag moo waral uh-huh. suñ ci jógee jëm ci àddee ñu mën a am barab yoo xam ne tey dañ ciy waxtaan addi ku ko tudd tudd sahaaba yi dëgg la anfusuhum awaaluhum la ñu waxoon mm-hmm. euh, ziar bi mm-hmm. buñ ci soññee ci sëñ Touba mm-hmm. dangay ngay defee ne Seydina Ousmane mi ngi ci benn ci biir daal yi <laughs> ndax duñu wax mukk fukki minute ah waaw man ragal naa ni daal <laughs> xam naa ni moom <laughs> waaw mu kon mi ngi noonu ah. duñu wax fukki minute ah. te tudduñu ko Abdourahmane Ibn Awf dañuy tudd turam ba nga yaakaar ni mi ngi teew jotaay bi ñuy soññee ku mel ni maam Thierno Birahim ku mel ni sëñ Ahmadou Dubé sëñ ma Massamba Diop Samb ah, ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall ah, maam Cheikh Anta dañ leen di tudd ba boo demoon ci daara yi am na ñoo xamante ni dañ naan kii mooy Moussa ibn Umayr kooku moo yoroon drapeau bi bisu Uhud léeg-léeg ñu ne kii mooy kii mooy sëñ Massamba Diop Samb wala ñu ne kii mooy maam Cheikh Anta ngir lan roy leen ci seen pas yi yéem seen melokaan yi naw seen jikko yi te sëñ Tuubaa dafa ne woon waajari nee na su la as cam yéemee nekk ko su ko defee la la yéemoon ci yow ci moom nekk ci yow isa ajab xisaal kunu mhm. tey jii buñ la nee sëñ Mandumbe mhm. bay na nangami junni ton mhm. ci gerte jox ko sëñ Tuubaa yow nga yor nangami junni ci ay dërëm jox ko su yàggee léegi boo melul ni moom it jaar ci tànk yi mu jaar <laughs> kon addiyee mhm. li ci sëñ wax bari na mhm. te ci ziyaar it bu mel nii bii ñuy waajal Cheikh Mouhamadou Mountakha la ñu amee woon xam-xam ci addiyee boo xam ne Serigne Saliou Mbacke moo ñu ko waxoon moo ñu ne addiyee ji ngeen fi indi mhm. maa ngi ñaan li ci borom dële lépp fekk leen ci nee na sëñ de nee waxuma addi lii lay jariñ de waaye lii muy bëgg wax bokk na ci njëriñ mhm. neen dana fekk fu dara newul woon mu def fa dara ah, loolu waral bu ñuy soññee di nga gis koo xam ne mhm. bu teewee boo wax pas-pasam ci sëñ tubaa mhm. da nga ah waa ji nag tey café gi jàpp na ko <laughs> kii nga xam ne boo xëyoon gis palaasam bi mu yor mbaa li mu gàddu mbaa mbaa ni muy lijjantee wala ay taaba taabaam mu wax li ci sëñ Tuubaa waa ji fu muy jëlee fu muy jëlee xaalis ah, waaye boo toogee ab diir ñu ne lañ ko rëddaloon weesu na ko ba mu nga yóotu leneen lu mu ci dolli loo xam ne ci coobareem la kon la sëñ Abdoulaye waxoon de mm-hmm. mbay mu nangu mm-hmm. xool yi nangu ñoo ko gën a wóor mm-hmm. kon nee na addiya day fekk fa dara ne mu def fa dara ah, day fekk maanaam lu lu bari woon te barkeelu mu barkeel ko day fekk lu néew mu baril ko Euh, sëñ Maodo Ndiour mii di wax. Mhm. sànq sànq laata ñuy tàmbali waxtaan wi. dégg nga ñuy waxtaanee lu yàgg. ñuy fàttaliku jamono yi nga xam ne. waaw la. <laughs> Euh, euh, ñu nekk ci sëñ Touba. waaye ba fa toll woon. Mhm. ku ko wonoon tey la mu la mu la mu la mu la mu daan joxe. Mhm. ci élève boo xamante ne day xëy di jàngi. ak fi ko sëñ Tuubaa indi tey soo ko ne addi dana def dara newul woon dara mu ne la may misaal bi <laughs> koo fi jël nag solo waxee boppam ci loolu tàbbi kon gis nga gis nañ ne sëñ Tuubaa dëral na ci lu ne neen day tax a gudd fan addi day tax a jiitu say maas day tax booy jéegi siraat kenn du la laaj day tax sooy tàbbi àjjana kenn du la isaab te nit mën naa tàbbi na waaye bu yeggee mhm. dana nooyu lool sonn ngir isaab mhm. ndax ne nañ dërëm bu ne mhm. dañ lay laaj foo ko jëlee boo ko jëlee fi nga ko jëlee pare ñëwee la foo ko dugal loo lekk lu ne ñëwee foo ko jëlee loo doon def ba mu rees suñu borom nee na ngelaw li ngeen di nooyi wér gi ngeen di am ak jàmm ji ak yooyu yëpp bu leen jàpp dama leen ko defal nii de mhm. dinaa leen laaj lu leen ci def mhm. su ma la tus àllun na mhm. yow ma ideen andi na yéen sëñ Tuubaa nee na addee koy joxe yooyu yëpp doo ci jaar na buñ la dencoon ci sa bàmmeel téeméeri at ñëw sulli la ba nga yoroon buñ ko fëggee dara ci tax nee ñi nga xam ne seen yaram day ràpp ci bàmmeel ba am yu koy jëfandikoo lu mel ni ay sax nee ñu joxe addee suñu borom musal na leen ci bu ñu jéggi siraat dañuy gaaw waaw tey loolu lépp sëñ Tuubaa wax. Mhm. ku ko soxlawul. d'accord ñëpp ko soxla. ñëpp ko soxla waaw ci lu wër mooy texe àddina ak texe àllaaxira kon jiitu say maas. Mhm. gudd fan. Mhm. sëñ Tuubaa nee am na ci yéen ñoo xam ne. suñu narlu woon am wërsëg mooy tax ñu am ko. man de gisaguma benn murit. boo xam ne soo ko joxoon ay résumé. fukki at ci ginnaaw. dina ko bëgg xool. am na ñoo xam ne fa ñu toll woon. fukki at ci ziar ci ginnaaw. wala ñaar fukki at daan joxe seen doom joo xam ne amagul fukki moo koy joxe tey ci sëñ Tuubaa ah, loolu ak yokkute mhm. te sëñ bi nee na te loolu amu ci dara luñ la ci woon looy gis la looy xam la ndax dañ ciy teg sa bët mhm. addiye kon noonu lu ci loolu ci sëñ Tuubaa wax mhm. nga gis kon mag ñi nee nañ sëñ Balla Faali moo ko daan wax nee na desitu soxla matul addiye kon mooy doo faj say soxla ba mu des. Mhm. nga jox sëñ bi. Mhm. waaye neen desul àddiya mhm. xajul ci soxla. Eh, ndax barkeel gi. <laughs> <laughs> waaw te itam ni nga xam ne àddiya uh-huh. am na mbóotum boppam. Uh-huh. yaakaar naa ni ziyaar bi firndeel na ko. kenn ku ci ne. la nga féetewoo ca daara ja nga ne. ci diir bi ñu woote ziyaar bi. ndax bu ñu fàttali ci biir koor gi. bi koor gi amee ñaar fukki fan. la jëriñu daara ji soññee ziyaar bi. yëkkati nag yitte ji foo xam ne. Mhm. bii mu ko daanelee. Mhm. moom xam naa ne am na ñoo xam ne. Mhm. moom koor gi yëkkatuñu ko moom. <laughs> ndax jant dina so. <laughs> te du ñu xam ne jant bi sono waxuma la xëdd ak leneen ndax xam ne lii moom. Uh-huh. doy na sëkk ab liggéey. moom léegi di nga naafila ba romb rakk yi nga doon naafila <laughs> ñu ne sëñ bi sëlmalal waaye kon kon xam nga ne kon maanaam. waaw bi. Uh-huh. moo gënoon moo moo gënoon discours uh-huh. gi. ba noppi itam. moo gën itteewoo koor gi waaye fi ñu toll nii tey ci sëñ Tuubaa wax dëgg yàlla sant yàlla rek kenn ku ci ne mhm. njàqare yi nga amoon mhm. ak jaaxle yi ak ñàkk gee nelaw ngir lan sa xol ci boppam mhm. jëm na ci sëñ Tuubaa noo xam ne mm-hmm. digg nga ci loo xamante ni mm-hmm. sa bakkan da ciy des rek waaye dara jaralu la ñu koy seet naan def na ni wala laa <laughs> waaye gis nga ni sëñ Tuubaa mm-hmm. laata nga fay àgg lijjanti na ko ci <laughs> kon loolu yaakaar naa ni uh-huh. secret la boo xamante ni uh-huh. uh, addi yi itam wanate nañu ko dëgg la waaye loolu lépp nag uh, li ko indi rek mooy li Cheikh Amadou Mountakha doon wax uh-huh. na sëñ nañ ko lool waaye nee na xamuñu ko dunduñu ko ah. waaye nee bu ñu ko dundoon dëgg ah. malaayika yi ñooy doon suñuy nawle mag ñi àndoon ak Sëñ Tuubaa <laughs> noonu lañ daan def ah, te saxaaba yi dañ daan joxe addiya ci mm-hmm. ba noppi mm-hmm. ñu jënd ci ngànnaay yi waaw ñu joxe addiya yi ñu jënd ci fas yi mm-hmm. ñu joxe addiya yi ñu jënd ci dund yi ñu joxe addiya yi ñu waajal ci ñiy xeex ba noppi ñu yéeg ci ñoom fas yéene seen bakkan des ci ah, kon ñooñu kuñ ne ñooy sa baay ci diine mm. ah, kon moom ah. boo boo boo boo boo boo boo doo mën a dem dëgg la moo tax nag isub bu ñuy waxtaan mm-hmm. dañuy teg loolu ndax ziar bi bi ñu ko defee ci biir koor gi mm-hmm. moom badar lañ jël teg ko am na fan yoo xam ne moom mm-hmm. danga naan sax ndax su ma gestoo ci daar yi <laughs> ci soññe bi du ma dégg keleng keleng jaas yi kenn ku ci ne teg sa bopp ci foofu tànnasuwal ma warta mahaal gars yi waxoon uh-huh. di wax dëgg yàlla uh-huh. lii ay junni laa ki million yeggul foofu nag waaye sëñ suñ suñu borom uh-huh. ci barkeb sëñ Tuubaa ni mu baaxoo gàttandu képp koo xamante jóge ngir moom rawatina koo xam ne njàqar yi nga am yëpp du dara lu dul mm-hmm. liggéeyal ko rek mm-hmm. ah, dina ñëw ñëwin woo xam ne uh-huh. su ñëwee doo ko nattal wallaahi wér na waaw jërëjëf jërëjëf suñ Mamadou Lamine Diouf ñu ngi lay bu baax baax baax ñu may xamal ne waxtu yi tamit mi ngi dem bu baax a baax baax li ñu dese ci waxtu bareetul lool waaye suñu limaan xam naa euh, fii nga xam ne foofu la suñu Lamine dugg léegi rek ci gi ci bopp euh, ñu am lu yéeme yéeme ci itaqiya euh, keroog bi ma njëkkee dégg lim bi man dama jàpp sama kii mu li lii moom mënta nekk moom ni ma mënta nekk ma dawal tuuti dégg mat na ñu ngi ci deuxième phase bi fi mu ne ñu ngi <laughs> sëñ Tuubaa mu ngoog euh, kon li ñuy faral di wax ne euh, si alali sëñ Tuubaa la loolu moom kenn weranteetu ko waaw mu ngoog waaye maanaam pas-pas bi nga xam ne si fi la gars yi di teg seen tànk ba nga xam ne lu responsable moral topp ak lu mu kawe kawe kawe kawe gars yi dañuy gis ne lii sax dese naa kawe tuuti nga xam ne wax nañ ne maanaam euh, suñu dem na ba mu yàgg mu ne man bu ma yëgoon sax du ma tudd lim far waaw <laughs> ndax la mu doon xaar moom dafa dafa kawe njortam waaw mu bëgg nga dellu siwaatal ma rek ci pas-pas boobu nga xam ne si ak yitte jeeg yéen a jooju nga xam ne si moo animé mboolem taalib yi nga xam ne si ñoo nekk si daara ji ba dara nekk seen kanam moo xam crise la moo xam naqari jamono moo xam lu mën di doon ba tax ñu ne addiya nangam lañu bëgg a joxe ñu ne loolu du des desu ko man wala loolu xam naa ne jamono romb na foofu wala yu demoon. waaw kay jërëjëf jërëjëf sëñ Maodo ah. jërëjëf euh, ak ñi fi jaar ñëpp. Ah. loolu itam damay wax ni sëñ Touba ko doon ne rek. ndax sëñ moom. Ah. Euh, fii ci Daaru Khoudoss ba muy jaayanteeg Rasulullah salaam salaam foofu la tàmbalee. ndax ba mu ne ci ñii laa bëgg a bokk muy ñii la ñi sëñ la Lamine tudd léegi muy waa allu Badr mais yont bi da koo gaaral lu ne ne ko man na la cee fekk mais dafa mujj ne man luñ ma mën a yen xaw ma lu mu doon waaye su ko roog yi dékkoo attene uh-huh. sama jum dékk na ko ah, sama jum dékk na ko joojee nag mooy lii gars yi dañ leen a teg dañ leen a waaye dañuy dolli sax dañuy dolli di ah, dolli waaw te xam ne lii ñuy jox sëñ Tuubaa suñu yokkute lay doon ziyaada ziyaada dama lay wax ne maanaam euh, joxe addi addiyal sëñ moom dama la ne dëkk bi ñu nekk di Sénégal de moom muriti sëñ Tuubaa yi ku leen fi ëpp alal amut ndax ñoo dàq joxe addiye te addiye day yokk jumaay masaalik ji firnde la ci dëkkab sëñ Tuubaa bi firnde ci uh-huh. kon joxe addiye day tax nga yokk uh-huh. moo tax nag kenn ku ci ne buñ la ko waxee da nga yàkkamte sax dégg yow lim bi xañ sa bopp sago ba jëf ko man am na jamono yoo xam ne damay dawal fukki waxtu ak juróom ne lii ci sama kanam daal moom koor sax dogg waxtu dogg sax day jot fekk ma ci oto bi barke sëñ Tuubaa bala ñoom ñu gis nañ ko kon ittee moo gën a ñëw jaasi mais luñ ci am rek ci sëñ Tuubaa lañ ah. ndax moom mhm. euh, maanaam bi mu jógee fii dem ci tukki bi ba ni mu dikk si dellu si ah. waxtu jot mhm. itteem day gën a yéeg ndax tey jii koo xam ne dana leen dina la booleeg sam noonu. dina la do booleeg gaynde. nga ne leen man daal roogi la moom sakku ma ko. ba xam ne muy attan waaye lu ñu ma mën a yéen su ko roogi di attanee sama jëm dëkk na loolu lañ dox kenn ku ñii ñëpp kenn ku ne daa dagg paas bu seer ñëw. te bi muy laati ñëw lañ ko féetale woon fee weesu na ko ba dolli ko waaye nag sëñ Tuubaa da daan wax ne wa kun muinahum ala umuri ad diini wa ma madad duhuri sëñ Tuubaa dana sama taalibe yi di ma liggéeyal suñ borom. na nga leen dimbali ci seen mbiri diine. waxal nañ ko léegi. ba duñ ñee kenn. Ah, waaw waaye nag. wa dunya. seen mbiri àdduna na nga leen ci dimbali ba duñ ñee kenn. wallaahi mais ñaar ñaar yooyu am na. <laughs> waaw mbir mi bi mu lëndëmee wa Tuubaa yëguñu ko sax ci ci jaamu yàlla. nañ daan def nu raw nañ ko daan defee. Ah, waaw waaye la ko jiitu sëñ Tuubaa dafa xool jullit yi wala ay taalib ne ne suñ borom. ñii mm-hmm. day. Mm-hmm. waq di xawaa ijal la siina daamoo. Mm-hmm. taamoo la fii xidmati wax loxo maaraam moo tax murid dëggal da nga yokk ba faw mu ne wër suñ borom mhm. ñi nga xam ne ay kuréel lañu di mbooloo mhm. sax ci sama liggéey rikk mhm. waq di xawaa jële si na daamoo na ngay faj seen aajo waaye bu ci yem de waxab lahu maaraamoo bay bi gars yi dañ koy jokkalante <laughs> waaw waaw waaw ñu bëgg na nga leen koy may moo tax sax ñi li nga wax ne jawriñ wax na ko ne bi xeeban na ko loolu rek la demee. kenn ku ne ci ñun daal xam naa. waaw lan la féetaloon romb nga ko. Mhm. li ma ci gën a yéem nag mbégte mi ñu àndal di ko jox. sëñ Tuubaa te sëñ Fall wax na ko nee na almaalu saqiqu ruux alal dafa sax ci xol. waaye dañ koy jox sëñ bi mel na koy naan ndox. mais loolu tam sañ bi lañ ko jëlee rek. Mhm. da daan jox rasulaay. Mhm. di ko jox ak am na foo xam ne yaa akramal xalqi. inni xaadimun laka ma ahya bi matxin wa sabbin bil qasidaati waat dafa waat. ne ko mm-hmm. yow rasulaay ki gën ci mbindeef yi xamal ne. Mm-hmm. feeg maa ngi dund. Mm-hmm. dama lay liggéeyal. bi matxin wasa bi bil xasidaati di la tagg-tagg yoo xam ne ko ko gis bëgg la. di la aar aar goo xam ne ku wax safaan bu gisee li ma la wax rus. wala mu urid a dunya li tëq tatfat. ya daa soo xëy. wallaahi wallaahi waaye nag ne ko lii ma lay lii ma lay tagg lépp yow nga ñu mbindeef. Uh-huh. bëgg si jëmm ji rek a tax. Uh-huh. du bëgg am poñet mi nga xam ne Zuhair. Uh-huh. ba muy tàgg am poñet àdduna tax. Uh-huh. sa jëmm ji laa bëgg. wallaahi wallaahi waaw kay moo dal Hizbut Tarqiyyah. waaw <laughs> waaw ci lu wér lépp lu jëm ci sëñ bi moom. bu xasee ñëw fàtte nañ suñu itey bopp. fàtte nañ suñu lépp. ndax xam nañ li sëñ bi dencal ak la ñuy amee ci moom. moo gën. te loo gën a jox sëñ Tuubaa gën a am alal. wér na a joxe at yi gën a yokk. wér na lool kon daal loolu moo tax. ñi nga mm-hmm. wax daal looloo tax. waaw duñ ci toqi duñ doyal waaw barke waaw waaw nga dolli ci waaw bisimilah sëñ Mohamed ah, barke sëñ sa Lamine lu ma sànq dama yëngal sa Lamine bi ñoo nekkoon groupe élève étudiant uh-huh. mu ne woon mu woon suñu magu fukuraas uh-huh. guddi goom dañoo boo xam ni <laughs> ñoo jooy xar ndeysaan ñu xar yi du deux mois la uh-huh. ba bu ñu ne duñu tekk mbaas bi te xar <laughs> bu dañu dagale bi dem ba suuf guddi gi si foora pël ya li ngeen di xar xar ya balaa fajar xar xar yi ñoon daara moom mii moom moom day day yaa boole si liggéey Sëriñ Tuubaa daa wallaahi wallaahi daawul xëy euh, digle dara muy fanaan wa muy muy yendu waaye du ko du gontit digle dara muy fanaan waaw mu ngoog euh, sëñ Fallou xam naa ñu ngi waat gis nga sëñ Cheikh Ndiaye mi toog mi ngi may soññi fi mu ne nii ci waxtu wi waaye waa Régis moom xam naa ne ku ma ku ma mënoon doxaleel benn barrière sama digganteeg ñoom rek <laughs> ba du ma leen gis duñ ma gis <laughs> ah, waaw looloo tax nag looloo tax ñuy soññee waaw waxtaan bi na lool man ma soñoon waxtaan suñu tuwaamu dañuy bàyyi ma wax ba ma wax ba doyal rek xam ne moom la sëñ Lamine doon wax léegi ak euh, sëñ Ilimane muy lu jëm ci wàllu addiya nga xam ne kon euh, dafa am xawaay boo xam ne si moom lay taxaw ci ci ci ci ci murit bi amit loo xam ne si moom lay représenté ci moom waaye murid yi ci amaat geneen tawféex goo xam ne si suñu Tuubaa defal ko mooy que ne euh, suñuy joxe dañ koy liggéey ba mu lew ñu ñëw jox ko sëriñ bi sukk ci kanamam boole kooki jooy xeeb ko lool te mu ñuy dem boo moytul dañuy yoxoosu ndax yaakaar nañ ne gàcce dana lañ ca topp yoo xam ne si lañ joxe ndax ndaw ndaw gu mu ndaw waaye ku ci nekk da ngay làbbalewaat ni ëllëg di mu ñëwaatee xaaral ba négal ba mu ñëwaat rek nga xam ne kon kenn ku ci nekk day mel ne lii sëñ la waxoon rek euh, ci ne la nga joxe woon daaw ren boo ñëwaatee da ngay jàpp ne lee moom euh, xëy na dama dama dama dama dama yaafusoon rek moo tax ma joxe ko waaye tollu ma woon foofu mel na kon yitte jooju nga xam ne si moom la ñuy def ci li ñu war a jox sëriñ bi euh, ak pas-pas biñ ci am ak yéene jiñ ci am euh, mel na loolu tamit lu am am am solo la loo xam ne si Sëriñ Tuubaa moo ñaale na ko ci muri dimbali leen ci ba nga xam ne si kenn ku ci nekk am nga ci tawféexi boo koy joxee non seulement am da nga am bànneex lool ci joxe gi nga koy joxe waaye da nga ci am mbégte da ngay xeeb bu baax a baax a baax li ngay li ngay li ngay joxe yaakaar naa foofu tamit da nga ci dikkal ba nga xam ne si dana wane rek li nga xam ne si moom la suñu yuusu tobbi woon nga xam ne bi mu ko waxee euh, daw tuuti lañ dawal rek lépp daa di mat ba ñu tàmbaliwaat leneen di sumbaat yeneen i yeneen i sumb tegaat leneen sunu sunu sunu sunu kanam mel na kon loolu yitte la joo xam ne si ci daara ji euh, suñu borom dimbali leen ci ndax euh, nampatal nañ leen ci te yàlla dogal na nangu nañu ko doxe euh, te Sëñ Tuubaa di amal maye na leen ak ak ak ak ak ak ak yombalal ba nga xam ne lu ñëw rek dana yomb ci ñoom lool te lii nii da koy firndeel tamit muy ziar bi nga xam ne si moom lañ dëgbal. waa sëñ Modou ñu ngi ziar bu baax. Mhm. loolu moom duma ci sori sax. exemple bi ma ciy jël. waaw daaray Touba ji laay jël. daaray Touba acca bisimilah. <laughs> waaw acca. sëñ Touba la ñuy xëyal. waaw sëñ Touba la ñuy gontal. waaw walaay ci lu wér. ku njëkk a matal. Uh-huh. ñoo njëkk a matal. nan ngay waxee keneen ki nga xam ni mi ngi ci ay yittey boppam. Uh-huh. mu ngi dawal saa su ne boppam subaak ngoon guddeeg bëccëg. Uh-huh. barke sëñ Bamba boo ñëwee ñoom ñi ñoo lay soññu. sëñ Tuubaa eh, sëñ Aatu noonu la andi woon ak ñoom def ci ñoom pas-pas ak ak fit woo xam ni ci sëñ Tuubaa moom ko donde woon waaw ñun ñi ànd ak moom ñii loolu rek lan dond wallaahi wallaahi li nga wax tamit xam nga koo xam ni danga ngaa jaayanteeg moom muy mm. Cheikhul Khadim waaw wax ko ni mm. yaa moom suñuy bakkan moom suñuy alal te dafa am euh, suñ magum murit Baye Modou ba day wax ni. waaw garab goo xam ni deret moo ko doon suuxat. ku ko bëgg a suux suuxate ndox. du dem déedéet déedéet. kon li ñu koy jox. moo ko moom alalam la. dëgg la li ci am solo nag. nan gore. xam ni heure bu ko laajee. ak fu mu ko laaje ak nu mu ko mënti laaje dañ koy teewal <laughs> waaye daaray Touba ji doy na ci sëkk doy na ci sëkk misaal pour maas fee ci lu wér <laughs> ci lu wér ci tënk gi ndax ñi may xamal ne li ci des euh, bariwul ci ay minutes daanaka juróomi minutes rek lay tollool waaye bëgg naa bëgg naa jëlaat keneen de bëgg naa jëlaat keneen wala ñaar sëñ sëñ Limaan euh, wala sëñ Maam Lamine ku ngeen may suggéré ah Baye Mbacke ana Baye moo kon Baye Mbacke mooy jëwriñ daara yi isbu tarxee bu France. waaw Baye Mbacke bisimilah. ñëwal waaw bisimilah Baye <laughs> nag gis nga ni moom. waaw maanaam maanaam. Baye ay soññe am solo fan yii de. waaw <laughs> moom da gis ne armée bi moom. dañ ciy gis classe yu ñoom Cheikhouna Sow. waaw wallaay gis ci. classe yu ñoom gis ci sama mas gi waaye gis ci maga murid wallaahi wallaahi aja bismillah Baye Mbacke <laughs> bisimilah barke Borom Touba kon ñu ngi nuyu murid taarix yi ñu fi dajal yëpp di fab nuyoo jiital sëñ Elimane Sarr mhm. jëwriñ mhm. na yëkkati micro bi rek ah, di ko teg ko ci loxo mu tegal na ko ci loxol sëñ Yuusu waaw mhm. ah, bu loolu jàllee itam nag moom dañuy dikk rek ci li nu fi andi bàyyi na fi mu liggéeyal sëriñ buñ xoolee ci mag ñi fi jaaroon yaakaar naa ne lii du doon lu ñuy war a jàng yaakaar naa ne man ci ni ma gisee waroon nan mu ne nu def siyaar bu mel ni waaw ni ma gisee itam wóor na ma wóor yàlla ne siyaar boobu bii mm-hmm. dana dana foox siyaar bu fi ma sa jaar kooku moom xam naa ko mm-hmm. gis naa ko itam mm-hmm. bu ci wàllu liggéey bi nag bu dee ci wàllu liggéey bi. Mhm. ni nga xamee moom ñun fa nekk de ni leen ni koy doxalee. Mhm. xam naa keroog bi nga xamante ne bii ne bal band bi daanu na. ci ci mhm. suñ kaw. guddi googu man de keroog sama digg ak sëriñ Tuubaa nelawuma. waaw di xalaat. Eh, eh. waaw na ma wóor yàlla ne lii sëñ li sëñ dana dana dana dana danañ ka dana dana dana mat. day ëpp sax. ndax sëñ Tuubaa du santaane lu lu lu yendu àll. Mhm. mbaa mu di fa fanaan. la nan ko nam ko waxee ne leen ko gisee. Mhm. nun di sunub liggéey noo ngi ko tàmbalee ci ñett ci ñeenti fan. Mhm. eggale ko ci fukki fan. Eh. waaw ngi woo ñëpp nag. di gërëm ñëpp. di sant ñëpp. di baal àq di baal àq ñëpp. Ah, booy fàttewuñ kenn itam. waaw mboole mboolem daara yi nga xam ne moom lañ ñoom lañ seqal liggéey bi daal. Mhm. ngi leen di sant di leen gërëm. Mhm. di ñaan tënu yàlla ak yonent bi ak jëm Sëriñ Tuubaa. waaw Cheikh Modou Mountakha Mbacké yàgg fi lool te ànd ko gër. ok amiin yaa rabbal itam yàgg ci gannaawam. allahumma amiin. sëñ Youssou nag dama koy xamal lu bëriwut. Mhm. man li ñu doon wax man sama yoon wu ci. waaye damay wax sama diggante ak akulaay sëñ Youssou li ma koy xamal mooy. giñ naa Seexul Xadiim mm. bu tëddee booy ba mu nelaw loolu sax waxeen la waaye du du nelaw ndax commando bu mag xëy moom moo ci armée bi kooku moom ku ko ne nelaw xam nga du nelaw mm-hmm. waaye di ñii ko wër de mm-hmm. mu Hizbut Tarqiyyah war newu ci muy biir réew mi muy bitim réew Hizbut xam ne kii ne nëroo nëroo jariñu na mm-hmm. nga ne du la ci fekk mboolem ñi fi nekk ñëpp mm. dañoo ñokk mel nañ ne përiñ. Hmm. dootuñu dellu gannaaw. Ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf Baye Mbacke ñu ngi koy sant bu baax a baax. kat ah, ah, waaw jox ko jox ko waaw. waaw mu ngoog <laughs> waa Régis may leen ma rek sarax leen ma rek dimbali leen ma ngir yàlla asalaamaaleykum <laughs> ñu yeggale ginnaaw bi ma leen nuyoo ziar leen di jël nuyoo bi di ko jox sëñ Muntaxa Mbàkke muy ñaan mu yàgg fi lool te wér ñun nag jataay bii nga xam ne moo fi ne tey jii mm-hmm. ci bayti Sëñ Tuubaa rek laa koy teg nee na naa jaaniyal munsul bil quraan yi xatta hadawtu mawlida samaan nee na dafa doxat ci diggante alxuraan jaayante na def na ci diggante alxuraan ba nekk koo xam ne mooy nekk rootkaar yi war mm-hmm. mari ñun dañoo mar ñëw di naan si te suñu mun taa yor teen bi <laughs> ah, ñu ku mar nag jëpp ci teen uh-huh. doo xool am ndox la wala da ngay ay montagne la wala dara dañoo xam ne suñu mun taa mooy ndox mi te dañuy naan. Ah, yóbbu ko nag ci daara yi xéewal yi yaatu ñëpp màndi. ngi jëm si mu taxa ah, ina laa maana <laughs> jërëjëf murit jërëjëf murit santaan nañ ko bu baax a baax a baax a baax mu ngoog yaakaar naa kàddu yi soññe yi eh, am na solo lool lool lool te it nag dafa dal xel lool ci eh, eh, kanamu ki nga xam ne moom mooy jëwriñ ji di Serigne Youssou yaakaar naa kàddu yi nga xam ne si moom la fi dégg dafay wane rek mbooloo mi gën nañoo takku te it nag ñu ngi ci ginnaawam guddi ak bëccëg fu ko neexee rek na fëgg gars yi ñëpp da ñëppay jóg bu soobee yàlla incha allah ma ngoog euh, kon xam naa dañuy daal di def benn tour rek ngir mën a tàggoo nag ndax ñeneen ma waxtu yu jeex na tàkk tàkk tàkk mën nañoo commencé ci yow sëñ euh, sëñ Elimane addu soññee nga ata ñu tëj jotaay bi waaw jërëjëf sëñ Modou maa ngi delluwaat di sant ñi ñëpp ah. waaye nag di sant euh, membre Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ah. te ñu daan soñ ci liggéey bi soñ soñante bu am solo. te ah. lépp jëm ci sëñ Touba. Ah, ah, loolu ñu ngi leen di sant ndax lañ ci bëggoon lépp am nañ ko ci tey. ndax lim bon soxla woon weesu nañ ko. kenn ku ne lan la féetale woon yaw tiitoon nga waaye ni ko Baye Mbacke waxee waaye yàlla wërsëgal na ba weesu nga lu raw loola. kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. man bayit yu may daane rek mooy waxi sëñ Touba. bi mu ne xafistuma sinar anit dafa tiri. Mm-hmm. falaa takkoon an xidmati bi faa tiri la wax. daf na yow mi ma jëbal sa bopp yaakaar ma bul sonn mukk ci sama liggéey falaa laa tekkoon naan xidmati bi fàttali loolu yaakaar naa gars dégg naa ko ci seen gémmiñ yi ba tey waaw ay dégg nañ ko sama gémmiñ ba tey mooy loo ko jëfal tey rek yootul ci kanam ina laa maana jërëjëf jërëjëf <laughs> ok euh, joxal ma joxal ma sëñ sëñ sëñ Fallou euh, sëñ Fallou yan kàddu yi soññee ngay euh, ngay tàggoo man de kàddu yi may tàggoo rek mooy bi nu wootee ziar bi dañ daan wax ni maanaam leeñ mun mu mag mun gas. waaw ngir ngir ngir soññi murid yi. dañ naan amul. waaw am. boo ñëwee ci kàmm micro bi waaw. moom da ngay da ngay jë da nga naan cëpp ni lay rek. loolu nag lan ñaan seexul xaddi moom mu dajal ko ci mboolem isbu tàkk <laughs> ah, waaw daal moom nañ ko dóor mu daanu moom ak sa <laughs> jërëjëf <laughs> jërëjëf sëñ Fallou Dieng ñu ngi lay santaat bu baax a baax a baax euh, si waa looy tëjee waa jërëjëf euh, sëñ Modou xanaa kaddu yu may tëjee rek. mooy fàttali kaddu yi nga xamante ni jëwriñu daara ji. soññe na ci lool. Mhm. te yaakaar naa fan yëpp sax. Mhm. ñuy dégg ñi muy yabal jëwriñ ñi muy yabal ci wàllu organisation bi. ku mel ni sëñ Mourtala Sey. Mhm. ku mel ni sëñ Ibrahima Kayda ku mel ni sëñ Amadou Sidi Sàmm. soññe nañ ci. muy wàllu euh, programme bi. ak yar bi nga xamante ni. ak taalibi gi. ak discipline bi ñu bëgg. rawatina bokk yi nga xamante ni ñi ngi ñëw mhm. ñu xam ne am na ñu ñuy fekk ci bunt yi dëgg la am na it nu ñu ko tëralee mhm. ndax Cheikh Mamadou Mountakha xam ngeen ne fu mu ne mhm. bokkam yu baax yi nga xamante ni ñoom la bokkal sëñ Touba. dañ ko fay fekk si kon am na fu ñu leen waajal ñu xam kilifa yi nga xamante ni dañuy ñëw am na fu ñu leen waajal jigéen ñi am nañu seen barab gone yi am nañ ko kuréelu xasida yi jàng am nañu seeni barab ñiy jàng alxuraan ak xasida am na fu ñu leen teg ñuy sàkku ci ñëpp ñu bañ a weranteeg ñi nga xam ne ñoo nekk ci bunt yi euh, ànd ak euh, yar akuk taalibi mhm. ndax lu baax la ñuy sàkku te lu baax ku koy sàkku mhm. da ngay góorgóorlu ba lépp lu koy may mhm. nga def ko euh, ñu xam ne itam fas sañu yéene dundal kër gi ci wàllu njàngum xasid ak alxuraan li tàmbalee juróom-ñeenti waxtu dinañ ci boole itam ay waxtaan ci sëñ Tuubaa ay waxtu ay ay ñoo xam ne ñu mën a waxtaan ci murid yi lañu. Mhm. soññ leen fàttali leen sëñ Tuubaa danañ fi daje. Mhm. njàngum xasida dina fi am. Mhm. ba waxtu wi nga xamante ni incha allah Cheikh mun Mountakha dana agsi. ñëpp ànd ak yar ak teggin ñu jébbale liggéey bi déglu ay kàddu soññeem. mu ñaanal ñu ñu dellu ci liggéey kon incha allah noonu la ko jëriñ daara ji bëggee mm-hmm. euh, di sant ñëpp nag bokk yi mm-hmm. mm-hmm. te ñaan suñu borom mbooleem ñi am yéene teew mu mu teewal leen te ñu defee ko niñ ko euh, euh, yéene te sàkku ñu ngërëmal Serigne Touba te am ko ci ñaanal Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu yàgg ko fekk si jataay bi uh-huh. yàgg seq moom liggéey bi Serigne Touba yàgg ñu ko nangul allahumma kon ñi ngi santaat bu baax a baax euh, mbokk yi nga xam si ñoom la ñu àndaloon jataay bi tey Euh, Serigne Elimane Sarr euh, yore coordination mboolem daar yi nga xam ne si ñoo nekk à l'étranger àndoon it ak Serigne Mouhamadou Lamine Diouf àndoon it ak euh, Serigne Fallou Dieng nga xam ne mu ngi jóge foofu ci Italie daara Hizbut-Tarqiyyah nekk foofu ci Italie ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoom la àndal liggéey bi foofu ñuy santaat ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant mbokk yi nga xam ne si ñoo nekk suñu ginnaaw muy kilifa yi nga xam ne kenn ku ci nekk ñoom it yëkkati nañu ay kaddu muy kaddu yu ak it kaddu yi rek ñaaxaat mbooloo mi di wane ne gën nañoo takku gën nañoo it laxasuwaay laxasaayu mu nekk ci ginnaaw jëwriñ ji sëriñ Youssou Diop ba lépp loo xam ne si woote ne ko rek euh, na ci am xelam dal te xam ne danañ ci ànd moom ci liggéey bi ba mu jeex tàkk euh, di gën a yeesalaat suñu pas-pas ci ginnaaw Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne si moo fi toog jotaayib Cheikhul Khadim te ñu fas yéene jàkkaarloog moom suba ci euh, ziar bi incha allah muy suba ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2021 woote bàyyi noonu si moom Lamine Diouf lañ ci wax am na solo lool moom it muy wane rek ne yar bi lañuy indi xëy na lu mu bari bari bari wala lu xër gi bari bari bari la ëpp solo moom mooy yar gi nga xam ne si moom la ñuy wane ci kanamu sëriñ bi loolu kon yaakaar naa ne ñu res na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ñëwee ñu mën a taaxeerlu mën a euh, taataan tamit li nga xam ne moom mooy kàddu yi sëriñ bi man cee jëriñu mu xool ñu bëti yërmandeem yooyu ngir ñu mën a am saxaaratu daare ni muy texe àdduna ak texe alaxira kon euh, loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñu leen indiloon ci waxtaan wi euh, man nag po ñi ma ci jàppoon moom euh, xam naa ne dama koy doog a xaajal rek xaajal naa ko sax waaye nag waaye régi ñoo ma mayut jàmm dégg nga ñu ngi may soññ ne ma waxtu wi jeex na tàkk tàkk tàkk waaye dama bëgg ñu tàggatoo ak benn ziyaara boo xam ne daara Hizbut Tarqiyyah defoon na ko ci atum 2011 su ko defee ñu fàttaliku loolu muy ziyaara yi yenn ci ziyaara yi nga xam ne si rek daan na ko def ci kilifa yi nga xam ne si ñoo fi jaaroon ci nga xam ne ñoo jote tooge woon eh, jotaay eh, Cheikhul Khadim yaakaar naa 2011 eh, sëñ Cheikh Muxtaar la ah sëñ Maam Lamine waaw kay ma kon ñu teewlu ziara boobu su ko defee jaare foofu tàgguwaale leen jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci bërëb bi incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

daara Hizbut Tarqiyyah ci mboolem bànqaas yi moo am ci biir réew mi ak ci bitim réew amaloon na ab siyaar bu mag ci ki fi toogal Serigne Touba tey di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér mu amoon bisub gaawu juróom-benni fan ci weeru safar atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci ati gàddaay gi dëppook 31 décembre 2011. siyaare nag ku nekk xam na ni bokk na ci li ab murit di firndeele cofeelam ci sëriñam di li muy yeesalee pas-pasam di li koy sàkkoo liggéeyal di li muy sàkkoo barke ak mucc te loolu lépp ñu wax ak yeneen yu am njariñ seexul xaddiim dër na ko mboolem ko jóg jëm si ci moom di ko siyaare wala nga di ko liggéeyal bokk na ci yooyu lu siiw muy tàqalikook bàkkaarub tey ak ëllëg gi nga xam ne warloon na ko waa sarsaara ak képp koo xam ne jóg nga ngir jëmmam inna lazina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati faaraxu daarayni aw saara moom moomu seexul xadim moo dellu waxaat ne fa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara wa kullu man ahabani aw maala ilayya farzuqu dan aw maala waxaat ba tey wajhu lazi yuxibu nii yab yaddu yowma wujuhu shuhada tab yaddu ba ci waqti hawaaiji lazina daamu fii xidmati wahub lahum maaraamu añikub siyaaru ren bi mu nes na ko gisee ci dikk bi waaye itam ci lu am solo ndax bi ñu agsee ci jumaa ji mag ji mbooloo mépp dañoo wàcc woto yi dox ak seeni tànk wër jumaa ji barkeeloo ko siyaare loolu lépp amee woon ci njàngum xasida moo xam ne dogul senn saa ci mboolem kuréel yi bàyyi ko ci daara Hizbut Tarqiyyah yépp ñun sunu jaayante rek la yeesal moo tax ne ko mag ñi daan defe xool nañu xool defin defin ñu ko gën jafe na nu nu nu te nu te nu jaar ci seen i tànk ak fas li nga xam ne jamono may nañu ko ci ay jumtuwaay ak i ak i xam-xam ak i xalaat ñu boole ko ci rek waaye xamal ne joxe suñu bopp rek ñu xam ne keneen yilifuñu ko dul moom rek moom rek ñu bëgg. ànd ak njàngum xasaayit mi mbégte mi maase ci ñëpp koo gis tey xar kanamam mën cee yëg mbégte mu wér ak fu mu mën a jóge muy membre wala muy gan. ba ni Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides accès ànd ak Serigne Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ci noonu jëwriñu daara isbu tarxi di Serigne Atou moo leen teeru siyaare ànd ak ñoom ñu jëm si ci mbooloo mi bi Serigne bi accès ci la jëwriñu daara isbu tarxi jël kàddu gi jottali siyaaru mbooloo mi fàttali fan la jëf ji ñuy def tege ak lan mooy jublu gi. tey jii ñi Hizbut Tarqiyyah dikkee ci kanamu kii fi toogal Serigne Touba tey. ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la sant di la gërëm eh, nii nu ko jotoon na waxe rek bi nga xamante ne noo ngi woote siyaare bii waxoon nañ ni ab murit bu jóg di dem siyaare ji sëriñam rawatina sunu xeet bii li ëpp ci nit ñi day naan. ay daanukat rekk lañu ñu ngay dem ca sëriñ ba sunu yàlla mayee nga nekk fi tey di takk ndeeram yor caabi buntu këram war na noo ñëw ba nga xam ni bokkunu ca ña doon diir diital danoo ñëw jaayante si ñëw ba nga gis ni xam ne joxe nañ sunu bopp joxe suñu bopp gi ñu dëggal ko ci suñu alal ak suñu jëm loolu moo nu indi nga xam ne ay murit lañu yaakaar seexul xaddim ku ñu ne moo ko fi nekkal rek xamal ne yaa yor suñu guum yow na boobu ngi suñu baat la nee na kon sëñ aatu yow mi nga xam ni yaag bokki taalibe yi ngeen àndal yéen a wajaral jataay bii tey sëriñ bi mi ngi gën a yeesal ak cantam diggam ak sëriñ bi ndax xam na ni sëriñ bi rek leen tax a jóg sëriñ bi rek moo leen tax a jóg moo waral seen bis bii tey moo waral seen bis bii tey liggéey bii muy defal sëriñ bi itam nga xam ni moom la boole ak cant gi euh, seeral na seen bi nga xam ne euh, taxaw ngeen na seeral na seen taxawaay bi nga xam ni taxaw ngeen ko ci biir liggéey boobu le xam naa ne waxtu wu nekk xam naa ni waxtu wu nekk jekk ngeen ci gën a jox seen sëriñ Tuubaa seen bopp. jekk ngeen ci gën a jox sëriñ Tuubaa seen bopp. jekk ngeen ci gën a dëgër ci fas yéene taxaw liggéeyal sëriñ Tuubaa. jekk ngeen ci itam gën a fas yéene dëgëral ci taxawal liggéey sëriñ Tuubaa. loolu sëriñ bi maa ngi jégalu bu baax. nee na sëriñ bi Cheikh Mamadou Taxa ne mi ngi jégalu bu baax. lu ma ci wax rek yàlla ko gën a xam. nee lu mu ciy wax rek yaa ko gën a xam. bokki taalibe lañ yoo xam ne. waaye nag bokki taalibe lañ yoo xam ne. dañoo aajoo ndimbal. dañoo aajo woon ndimbal. te am na yàqin bu wér ne. te am na yàqin bu wér ne. mën nga leen a dimbali ci li ñuy wut. nga leen a ci li wut. ndax ku dëggal nga ci liggéeyal Serigne Touba. ndax ku dëggal nga ci liggéeyal Serigne kon nag koo ci bëgg a dimbali rek mën nga koo dimbali. kon nag koo ci bëgg a dimbali rek mën nga koo dimbali. maa ngi leen di yalwaanal dimbal bu baax a baax. nee na mi ngi leen di yalwaanal dimbal bu baax a baax a baax. ndimbalul biir ak ndimbalul biti. ñu gën a mën a jox Serigne Touba seen bopp. ñu gën a mën a jox Serigne Touba seen bopp. gën a gën a gën a gën a fas yéenee gën a lëggéeyal Serigne Touba. gën a fas yéenee lëggéeyal Serigne Touba. boo leen ko nangulee rek. boo leen ko nangulee rek. ñu xam ni Serigne Touba nangu na leen ko sëñ tuba rek lañ lay xool te yaay sëriñ Touba kon nag jërëjëf sëñ bi nee na nangul na leen ko. noo gu noyyi rek. noyyi gu ñu noyyi rek. nañ ci yeesal suñu njëbbal.